muhammadin almakin wa ala alihi wa asxaabihi wa asna xadimihi dawi ridwaani wattamkin mbokk yi assalaamu aleykum wa taala wa barakatu bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci mustapha ngi dellu suñu jaayante ak suñu cofeel ci borom béréb bu tedd bii ci suñu wet di moolaana al abdul xadim di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu di leen ndokkeelit ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu tàbbi di weeru koor di ziyaara ak ñaanal ak ndokkeel kilifa gu mag gi nga xam ne moo nekk ci kanamu yoon wi ci kanamu jabootu sëriñ bi di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp ak mboolem taadu bi yëpp ak jullit ñëpp mu ngi leen di ndokkeel euh, tey jii mooy àllarba di ñaari fan ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom <coughs> dëppoo ak fukki fan ak ñett ci weeru maaris adar atum 2024 ñu teew fii ci béréb bu tedd bi ci weer wu mag wi ngir waxtaan ak jataay yu am solo yi nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo na di ko ànd ak bokk yi saa bu weer wi teroo keroog muy jeex xam ngeen ne démb lañ ko door tey ji mooy ñaareelu fan bi ñuy ñaan suñu borom defal ñu taw tawfiq ak ndimbalam ba ñu àggale ko ci jàmm lépp ñu am ci ndam tey tey itam daje ci ngërëmal sëriñ bi itam euh, tey nag ni ñu ko defe woon ci weesu dañoo tànn tomb boo xam ne bu ama am solo la jox ko itam jëmm ju tedd ju baax itam joo xam ne bu ñu leen waxee ci moom dara aslëf da ngeen xam bu baax xam naa xam ngeen ko sax waaye da ngeen ko gën a xam incha allahu taala mu war ko waxtaane tomb bi mooy al mursidu rabbaani muwaasafaatuhu wa makaanatuhu maanaam melokaani melokaani kilifag diine melokaani kilifag diine ak wàccuwaay bi nga xam ne am na ko Euh, yaakaar naa tomb la boo xam ne wax na boppam wane na boppam itam ndax bu ñu nee kilifa ba noppi ne diine teg ci war a waxtaane ay meloom war a waxtaane wàccuwaay bi mu am jàpp naan loolu dana tax ñëpp war ko bàyyi xel ñëpp war ko teewlu ndax mursid lañ wax koo xam ne dafa ame ay dafa war a amee ay melo yu ne ci moom yëpp sëñ bi dana ci ñëw teg ci rabbaani kon moom itam mu joxaat ko beneen maanaam mu xóot ndax day delluwaat lépp ci suñu borom subhanahu wa taala kon tomb boobu incha allahu la kilifa gu baax gi war a waxtaane duma dugg ci euh, anaasir yi dëgg-dëgg waaye am na ñetti tomb yu mag yoo xam ne dana ci dana ko waxtaane dugal ci biir ñetti tomb yooyu yeneeni tomb yoo xam ne dana ko yaatal dana ko tudd incha allah bu ñëwee ci tàmbali bi dana def muqaddima bu ci jógee ñëw ci yi nga xam ne mooy muwasafaat yi mooy yi maanaam ci biir muqaddima bi dana xamle lan mooy wala kan mooy al mursidu rabbani ak lan mooy cosaanam dana waxtaane itam e, fi ñu ko mën a sukkandikoo ci alquran li alquran indi ak sunna ci xamle ak leeral kan mooy al mursidu rabbani waaye itam ñenteel ba dana def benn laaj boo xam ne dana ko tontu insha allahu ci biir waxtaan wi lépp ci muqaddima bi mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala ay xeet la dafa am benn kilifa diine gu am wala dafa am ay kilifay diine yu am su ko defee nag soo ko ñëw ci ñaareelu tomb bi mooy nag melo yi boobu it am na tomb yu ci aju incha allah dana ko tudd bu ci bu ci jógee ñëw ci ñetteelu tomb bu mag bi mooy nag wàccuwaay bi bi nga xam ne moom la kilifa diine am ba moom itam am na ay tomb yu yu am solo yoo xam ne sëriñ bi incha allah dana ci dana ci ñëw ko defee nag comme tomb la boo xam ne jamono laaj na ko ndax jàpp naa ne jamono ju nekk société bu mën a doon danañ soxlawoo njiit lu mat njiit loo xam ne day ne ci kanamu mbooloo mi di leen won yoon wi ñu war a jaar di leen orienté di leen jubbanti di leen digal di leen tere taxaw taxawaay bu mat sëkkit nag loolu lépp war naa tax kon ñu mën a tànn tomb bu mel nii daairatu mu maanaam daairatu muqaddamatul xidma ci njiital al imaam sëriñ Afee Buso ak ñi mu ko seqal ñëpp ñu jox ko nag suñu kilifa suñu nijaay di suñu xarit waaye di suñu royukaay di al Cheikh ma Mamoun Mbakke ibn al Cheikh Mouhamadul Fadil ibn Cheikh Khadim sëñ Maamun na xam naa moom xam ngeen ko bu baax ndax euh, jaar na fi ay yoon te it bu dul loolu yit waxtu wu nekk ñu ngi koy suivre ci ay waxtaanam ak ci ci ci ci ak ak itam ci ay intervention yu am solo waaye du ñàkk rek xëy na ñu am tuuti rek luñ tënk ci wàllu ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ak li nga xam ne taxawaay yu am solo yi nga xam ne da koy taxawee ci yoon wi tënk bu gàtt rek xam naa sax taamu ko moom ñun ñoo ci insisté rek. ginnaaw njàngum alquraanam ci diggante tuuba ak dégg nga kër ma ñaaw ba wattu alquraan soobu ci njàngum xam-xam rawatina daalay cosaan ji nga xam ne moom da koy tuddee al umm madrasatul umm muy daarul maarif al islaamiya te alaaji mbàkke jaxate ne ca booba yaan saa buy waxtaan toujours da ngay gis mu koy sida lu bare bare fa la jànge lu bare bare bare ci njàngum majaalis mi ñu xam waaye ba mu ci noppee dafa daal di nag laxas dem ndakaaru dugg nag ci école yi jàng ba am certificat foofa sax daanaka taxawu fa ndax ecole euh, boobu ñu wax franco te nekk tafsir ahmadu ba bañ demee dañ leen a soteel lu bare bare ñu daal di def seeni seen euh, maanaam shahada ibtidaaiya mu daal di génn nag dem Algérie foofa moom itam mu jàng fa ba àgg ci niveau baccalauréat am ay tënki-tënki jamono ak ay jafe-jafe jamono yu amoon ci wàllu politique ci ci ñoom tax mu daal di fay jóge dem Maroc bi mu ñëwee Maroc nag la defaat maanaam baccalauréat boobu bi mu ko amee la dugg nag ci université Mohammed V bi nga xam ne moo nekk Rabat ci kulliyatul ulum al qanuniya wal iqtisadiya wal ijtimaiya mooy kulliyatul xuquq rek maanaam faculté bi nga xam ne mooy jàngale wàllu droit fa la am foofa la jàng fa la fa nekk di jàng ba am li ñuy wax maîtrise waaye doylawu ko mu jóge fa siwaat Sénégal ñëw université bii nga xam ne léegi moom la ñuy woowee université de Cheikh Anta Diop dugg ci kulliyatul adab wala ulumul insaniya muy faculté de euh, maanaam faculté des lettres et des sciences humaines ci ci euh, ci maanaam qismu lughal arabiya mooy kon département arabe fa la fa la nekk moom itam de kii fa jàng fa njàng mu yaatu wéyal itam dégg nga dirasa ulya ci kulliyatul xuquuq ba tey ci même université bi ci li ñuy wax troisième cycle ba am fa maîtrise moom itam soog a nag wéyal am njàngam taxul mu doyloo ko waaye dafa daal di inscrire waat maanaam part correspondance en tariqul murasala ci université bi nga xam ne moo nekk Paris muy Paris 3 foofu itam jàng na fa ba am fa benn diplôme bu ñuy wax brevet arabe littéral kon bu lii bu ñu ko tënk rek la ci ay yenn ci jaar-jaaram ci wàllu xam-xam bi mu ci jógee it mu jël loolu lépp nag fas yéene koo def ngànnaay loo xam ne da koy liggéeyale maam Cheikhul Khadim ci toorub lislaam bi muy xam-xam tax na mu am ay taxawaay yu am solo yoo xam ne taxaw na ko yiñ ci mën a tudd rek bari na lool waaye maanaam bokk na ci yooyu doyloo goo xam ne ay kilifaam doyloo nañ ko rawatina ci jamono Cheikh Saalix bari na ay daje yoo xam ne da doon am bitim réew moom mii bu jiitewul bo maanaam ña nga xam ne ñoo ko fa teewal itam dana bokk ci ñu ko jiite te mu bokk ci daje yooyu sommet des ville bi amoon Istanbul ci mois d'août ci 1996 te ñu invité woon ci Serigne Saliou invité ci Touba comme modèle comme ville modèle Touba gis ngir yu bare bare yoo xam ne seetlu nañ ko fi amul bidonville amul nangam ba noppi itam dégg nga nañ ko lotissé macha allah am solo lool tax ñu jël ko comme exemple Nations Unies ci boppam ñoo ko tànn. daal di invité sëriñ bi nag pour mu ñëw fekke si invité Touba itam pour mu ñëw sam boobu moom moom sëñ Mamoun mii bokk na ci ñi nga xam ne teewaloon nañ fa yoon wi te te dégg nga teeween bu rafet te Cheikh Moustapha Salih moo jiite woon waaye lu dul loolu itam am na ay taxawaay yu am solo ci suñu diggante ak lu mel ne suñu dëkk yi euh, maanaam suñu mbokki naar yi mm, mu commencé ci fi gën a jege muy fii fii fii fii ci gànnaar liggéey na liggéey bu am solo rawatina jamono sëñ Saalix ba nga xam ne ne Sarsara dox na ci ay jéego taxaw ci lu taxawaay bu bu bu mat sëkk ba suuf sa nga xam ne fa nga xam ne fa la sëñ bi nekkoon ñu mën caa jot ba def fa euh, ba ba ba ba fi mu nekk di ñu fay def jumaa wala wala jàkka nga xam ne naar yi bi ñu ko joxee sax dañu wax ne euh, lii bu doyul ñu dolli te loolu lépp ci ay jéegoom la ak ay ay taxawaayam waaye itam euh, diggante Sénégal ak Maroc taxaw na ki taxawaay yu am solo ba moom bokk na ci bu doonul sax ki nga xam ne. moo moo dox ba tey jii su màggal Tuba amee mu am délégation ay officiel maanaam yu jógee dégg nga ba Maroc di ñëw di fekke si màggal gi loolu kon ci wàllu diplomatie yaakaar naa da ci biir waxtaan bi sax loolu dana ci am wàll incha allah ci maanaam makaanatu al euh, al rabbani incha allah dana dana ci ñëw kon yooyu di taxawaay am solo bi ci mu nga xam ne moom laay jeexale sax soog jox fi mu toll nii euh, mooy ki teewal yoonu murit teewal sëriñ bi ci conseil supérieur des affaires islamiques bi nekk ko d'Ivoire te loolu itam ñoom ñoo ko sàkkul seen bopp ñoom conseil bi ñoo ñëw ci sëriñ bi giseek moom waxtaan ak moom xool yoonu murit xemmem ko ba wax sëñ bi ne ko bu gisañoon nga boole ñoo koo xam ne dana ko mate ci xam-xam dana ko mate ci wàllu ragal yàlla ak ci jikko ju baax yépp nga yabaadal ñu ko mu ñëw nekkal la foofa ci la Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg loolu tamit tànn sëñ Maamoun mu dem Euh, euh, teew di di teew ci dégg nga conseil boobu liggéey fa liggéey bu am solo man mi ngi rek waxtu wi daaw daje nañ fa gis nañ bu baax taxawaay yi nga xam ne taxaw nag fa yooyu yëpp daal soo ko boolee ay taxawaay yu am solo la bokkul ak nag euh, taxawaay yu rafet yi nga xam ne da koo taxawal yoon wi lu mel ne ak durusul xasaniya yi ñu amal ci koor gi ca fee ca Maroc nga xam ne maanaam buur bi day toog ñu invité borom xam-xam bu mag mel ne moom ñu jël benn dars dégg nga di ko jàngale ñu baree bari di ko teewee ay chef d'état yu ay kilifa yu mag dégg nga di ko teewee loolu am na ci yoo xam ne def na ko du benn du ñaar du ñett daanaka bi ci njëkk sax mi ngi wax dana euh, maanaam 2002 defe naa la ko njëkk def te amaana yenn lu ci topp kon mu nekk jëmm joo xam ne daal xëy na euh, yëpp sax bëggul ku ko wax ndax moom li ko ñor mooy taalibe gi ak xëy na toroxlu gi waaye nag baax na ñenn ñi xam euh, lenn ci misuwaar almiyam fi mu jaar ci wàllu ba nga xam ne danañ gën a jox itam solo lii nga xam ne moom la ñuy bëgg a andil kon sëriñ bi maa ngi jégalu eh, xëy na lii moom bëggul woon bëgg woon sax ku ko andi <laughs> waaye nag day loo xam ne mënta ñàkk bu ko defee kon ñoo ngi lay jébal kàddu gi rek incha allahu taala nga indil ñu waxtaan wi ñaan yàlla defal tawfiq te incha allah ngi teewlu ko bu baax a baax bisimilah aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alxakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahuma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Tuuba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi ziare mbokk yi tedd yi fi teew yëpp ndax bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba radiyallahu anhu yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem sant Cheikh Mamadou Fadal mi ma booleeg Serigne Touba te yàlla fayal nu ko te yàlla taas ñu ci ay barkeem te ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général de mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp ma àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko moom noonu lañ ko ñaanalee njabootu sëñ Tuubaa gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di ko ñaanal njaboot kilifa yi diine yëpp Sénégal ak kii li wër Sénégal ñu ko ñaanal ñu dong yëpp rek yàlla defal ñu jàmm ak mucc ak wér ak i xéewal di sant sëriñ Fallou ci kàddu yu rafet yi am na ci loo xam ni nga koy waxee da baax rek waaye jële ko woon as ndongo suy dabbu daaxee rek daanaka mënoon nga ne wax da ab taalibe buy dabbu daaxee rek la kenn ci dong yi rek eh, ñuy tàmbalee eh, wax ji nag incha allah ci sant bu baax a baax daayiratu muqaddamatul xidma bi nga xam ñooy taxaw lii ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa moom ku ne kaay tàbbi ca dafa la bëgg dimbale kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di teg cant googu ak ñaan gi ci loxoy suñu Afee suñ jëwriñ moom suñ jëwriñ la woon ci daara ja macha allah ak ñi koy jàppale ñëpp ba ci abadila yi abadila al al ahad ñoom ñëpp rek ak ñi nekk ci daayira bi yëpp ak waa presse bi ñi filmer ñi bind ak ñi jël yëpp rek ñu di leen nuyu di leen ziare di ziare bokk yu baax yi fi teew yëpp maa ngi si bëri ci njaboot gi ndeysaan ak njaboot gi ñu ngi sant ñëpp di ziare ñëpp di di di ndokkeel ñëpp ci jataay bi ak ci weeru tedd bi ñu nekk eh, mbokk yi dañoo pour gagner di pour njëkkanteeg waxtu yi rek ndax waxtu yi dafa xaw a gàtt fi mu ne eh, ni ko sëñ Fallou waxee eh, thème bi ñu tànn nañ bëgg ñu sànni ci ay kàddu mooy al murshid rabbani moo wa makanatuhu muy thème ni mu ko wax kilifa ak diine ay meloom ak wàccuwaayam muy sujet boo xam ne bu yaatu la mën a yaatu la waaye comme jamono gi dafa xat dañ ci tënk ay baat rek ci ñeenti point rek lañ koy tënkee incha allah gannaaw buñ ko ubbilee mooy li mu wax muqaddima danañ def lan mooy muwaasafatul murshid rabbani maa hiya muwaasafat al murshid rabbani lan mooy qualité euh, kilifa diine lan lan ndax ndax sujet bi daanaka moo plan boppam al murshid rabbani muwaasafatu wa makaanatuhu kon buñ ko ubbee ba xam murshid rabbani mooy kan xam muwaasafaatam mooy euh, muwaasafaatam mooy lan xam makaanatuhu mooy lan lan mooy wàccuwaayam daal dal tëj muy xaatima bi kon ñeenti point lay doon rek al muqaddima wa ma hiya muwaasafaatul murshid rabbani wa makaanatul murshid rabbani wa al xaatima ci tënk kon bu ñu tàmbalee rek dañuy wax ne kon gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant ñu ma ko waxee rek bokk yi fi teew yépp ak bokk ñu tàmbali ci liggéey bi ci muqaddima bi danañ ci wax ñetti point daanaka lan mooy al murshid rabbani ak ndax am na cosaan ci alxuraan ak sunna ci diina ji ak fu mu jógee eh, ndax kilifa diina genn lay doon wala yu bari la benn kilifa diina rek am wala kilifa diina yu bari la suñ ci jógee ni ma ko waxee deuxième deuxième beneen point bi mooy meloy al murshid rabbani loolu nag eh, dama ciy indi misaal moo xam ne ndax wolof la ñuy wax ne ku am ku dul lakk gannaaw ñu taalibe sëriñ bi lañ te réew mi dafa dafa doy waar loo wax lu ne ñu firil la ko tawil la ko dugal ko fu ko taxutoon a jóg kon dañu tàmbali sëriñ bi jëm ci sëriñ bi rek dama gis kenn xasee goo xam ne yéen ñëpp yéen añ ci bari ci yéen ko mooy xoqal bu kaaw ala ala sadati wax ne dafa mel ne sëriñ bi da ci xam ne boppam xam ne kii dafa ni mu ramel waaye ci mbaax ga ak mat ga ak ak ba du wax ne nii la mel day wax ne gaa yu baax yi ulaayka al xaw gaa yu baax yi nii lañ meloon fekk na damay jàpp ne boppam la bëgg a wax waaye nii laa mel mëne su ko wax da ngay bàyyi bañ ne la yaa nii mu bëgg bëgg bëgg ñoo dimbale boobu nag di na ne gaa yi baax ñi lañu meloon pour buñ ci xoolee xam ne moom moo mel noonu su su mel noonu bu def doolu nañoo wax kon su kilifa gi ni mu ramel damay wax ne euh, loolu bu ñu koy xamee dañuy indi sëñ bi dafa indi li nga xam ne ñëpp ko bokk waaw nga xam ne ñi kilifay diine ak ñi kilifay diine wala képp kuy ta jullit wala képp kuy murit noonu nga war a mel bu ca jógee nag ñu door a indi xeeti kilifa diine ak xeet xeet wu ne fu ñu koy layal ak fu ñu koy teg suñ ci toppee nag ñetteelu point bi dama ko waxee mooy wàccuwaayu kilifa ak diine moom wàccuwaay yi bari lool nag wàccuwaayu diine yor na ko yor na wàccuwaayu éducation jàngale yor na wàccuwaayu social yor na wàccuwaayu wàccuwaayu politique yor na wàccuwaayu orientation yor na wàccuwaayu administration yor na wàccuwaayu spirituel yor na wàccuwaayu euh, guidance nga xam ne day day day day jiite nit ñi yor na wàccuwaay diplomatique ak yeneen ak yeneen waaye dañ ci tënk yooyu rek di gàttal. kon bu ñu tàmbalee rek dañuy njëkk siyaare borom barab bi wax ko rek la ko sotteem ba waxoon du ma wax taalibeem ba ndax moom ne woon na du taalibe bu bëgg a cheikh sama sëriñ ne woon na ne woon na ku baax kii def na xuus ci biiram rek ba xuus ci biiram rek bu ñu ko tuddee du taalibe bu bëgg a cheikh du doom ji bëgg a doon bàyyam waaye ba mu koy siyaare la ma waxoon rek lañ koy wax ñun tam barkeelu ci siyaare ko mu di mu di ñaari bay itam yu siiw yooyu ngeen xam mu di yaa sayyidan yaa sayyidan fil maali qalla charwaahu wa yaa muhibban fuaadi dahra mathwaahu indi ataytu li wajhi llahi zairakum abghi bihi nayla ma arju wa ahwa kon nag sëriñ bi nangoo ñu ngi ñëw di la ziare si yow mi nga xam ne amoo dara ci ay waxin la yow mi nga xam ne sama xol yow rek la bëgg ak sa barab bu tedd bi nga nekk damaa ñëw ngir yàlla ziare si la ci ñëw googu rek laa lu ma yaakaar ak li ma bëgg lépp yaa ñaan yàlla defal ma ko ci te yàlla na ko ci yàlla def kon gannaaw bu ñu santee ñëpp gërëm ñëpp siyaare ñëpp siyaare Cheikh Mountakha siyaare sëñ Afiya siyaare sëñ Euh, baara ñu topp ak mbokk yi ko jàppale ci commission bi yëpp ci daayira Muqaddamatul Xidma ak lañ ne saqaafi bi ak média yi di leen ndokkeel ci bu tedd bi di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ak di ndokkeel ñu ñuy déglu ni ko sëñ euh, Fallu waxee ñu topp jataay bi moo xam ci dëkk bi moo xam ci gox bi moo xam ci réew moo xam bitim réew moo xam à travers les médias sociaux ñuy seere ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru tedd bi leen xamal ni rek ab ab ab euh, sëriñ bi dafa am ku génn ci daaraam koo xam ne damay wax ne bu ca yemoon rek mu di sëkk mu di maam Cerno maam Cerno jàngal ñenn ci njaboot gi jàngal ñu bare bare bare bare waaye kenn ci ñu jàngal mu di Cheikh Amadou Fadal am ci wax ju wax jum tënk daanaka mën ngaa wax ne rek mën naa tënk wax ji dafa wax ne maag sama mag baax ji Cheikh Moustapha al Karim maam Cerno dañoo dañoo yar ne bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jaar ñetti éléments yooyu rek bu ñu ci doyoon daanaka doy na liggéey maam Cerno dañoo dañoo yar bañ na nër mu jàngal ñu bañ na arr mu yee ñu bañ a jaar kon ab yar mënta ñàkk am njàng mënta ñàkk ak nite mënta ñàkk ak yeew kon loolu rek loolu rek doyoon na boo ko boo ko boo ko boo saraawoon rek doyoon na waxtaan eh, mooy wax nag ne waxtaan ci kilifa diine wala mursid rabbani ci ci barab bi jafe na yomb na jafe na ndax tey day sujet bu yaatu lool mën nañ cee wax ba suba du jaax waaye li tax mu yomb itam mooy dañoo toog ak borom xam-xam borom xam-xam yoo xam tabarka la suñu doom la ñu suñu sët ak suñu jarbaat ak suñu mbokki taalibe di borom xam-xam soo koy ñu gàgganti la barab boo xam ne boo fay wax boo koy ñu gàgganti la yomb nga xam rek bu dëngee ñu jubbantil la ko boo koy gàgganti la donc problème problème lu ci am kon sant yàlla bu baax a baax rek eh, ngeen xam ne xeetu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam day ummatu iqra ummatu iqra bismi rabbika allazi xalaq kon xeetu xeetu xam-xam la xeetu jàngale la xeetu yéege la xeetu defar la xeetu yara la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin adim kon moom ummatu iqra la xeetu jàng la ba tey xeetu xam-xam la xeetu gëstu la xeetu diin la baat yi ñuy wax waxloo nag mu di al murshid bu ñu demee ci alxuraan dañuy fekk ne dañuy fekk ne ko islam diinu rushd la diinu hidaaya la wa hudan wa istiqaama wa rashaad ak njub noo ko mën a tëgg rek mooy kii gindi nit ñi ci ak jub di ko jëmale ci yoonu yàlla moo tax ci alxuraan ja da ngeen dégg yàlla ba muy ñaan ihdina siraatal mustaqim la yàlla yàlla na ko gindi wu jub bi sëriñ bi ci ñaanam gu tedd yi moom itam la waxoon rek ihdi jamia an siraatal mustaqim wa bi saxihin kun lana bila saqim yàlla yàlla ñu gindi teg ñu ci yoonu jub te defal ñu ak wér donc rachada rushd wa rachad madda boobu ba ngeen demee ci alxuraan da ci ñëw ay yoon yoon Eh, ñëw na ci ayat suratul baqara ñëw na ci suratul araf ñëw na ci suratul suratu huud nga xam ne ak feneen ak feneen ñëw na suratul kahf maanaam bu ngeen demee ci suratul baqara am na fu yàlla y waxee ne bat roch roch aya 185 wa ida saalaka baada bismillahi rahmani rahim wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li wal yuminu bi an lahum yarshudun

subhaana bismillahi xaalu yaa Shuaybu asalaamaleykum taamuruka an natruka an yaabuda ma yaabudu abauna aw an fi amrina ma nasha innaka la anta xalimu rachid donc rushd wa rachad laa bëgg a ñëw rek wax ne ñëw na ci alxuraan bu ci nekk nag am na contexte bu tax jóg loolu duñ ci taxaw ndax kon day gën a jël waxtu yaatu lool waaye ñu xam ne baat bi lu cosaanoo lu ci alxuraan al la ñëw na ci suratul tax a jóg waaye ngeen xam ne kon murshid foofu rabbaani rabb wa rabb wa euh, rabb yooyu itam ñëw na ci alxuraan ay yoonu yoon cosaan loolu boo boo ngeen xoolee sortu fatiha alhamdulilahi rabbil alamin rububiya nga xam ne moom itam am na lu bari lu ci dox ju nga xam ne kon am na cosaan foofu fi suurati euh, ali imran ay tamani wa sabain ma kaana li basharin an yuutiyahu alkitaaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqulu lin-naasi kuunu ibaada lii min duuni llaahi walaakin kuunu rabbaaniyiin kooku yéen jàngat alxuraan yi da ngeen ko ci bu baax xam ngeen li ko tax a jóg waaye li ma bëgg a wax rek mooy jëmi baat bi ñëw ak istixaaq yi ci aju bi maa kuntum taamaloon bi maa taalamoon kitaab bi maa kuntum tadrasoon am na rabbaani bi fatxil ra am na ribbi yoon bi kasril ra am na feneen fu mu ñëwee ci sourate Ali Imran itam wa kam min nabiyyin qutila maahu ribbiyuuna kathiir fa maa wahanuu limaa asaabahum fii sabiilillaahi wa maa da'ufuu wa maa stakaanuu wallaahu yuhibbu saabiriin wa kam min nabiyyin qutila maahu ribbiyuuna kathiirun yooyu yëpp mën nañ cee taxaw waaye day gën a yàggal rek te eh, dañ ci dañ koy junj rek jàll noonu incha allah fii sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam eh, yonante bi dañu jàngal ne alxuraan yëpp moo ñu njëkk a jàngal ne nañ roy yonante bi ndax kaana fi lakum fi rasulillahi uswatun xasana li man kaana yarjullah wal yawmal axir suratul mumtaxana ay alxamisa donc kon nga xam ne yonante bi eh, ku ñu war a roy la ku ñu war a topp la addabani yi fa axsana yi kon moom yàlla ma yar moo rafetal sama yar

Euh, Sëriñ Tuuba euh, ba yo yonent bi digle ne xudu anni manasikakum waaw bu ngeen di aj boobu xamuñu ni ñuy aje ne xoolee ni may def rek ngeen def ko may may mursid bi boobu xamuñu luy aj xaj na xaj na naari bu ñu daan aj dañu daan wër kaaba ga dafay xëy dama mais aj bu bees gi bu islam bi bu ñëwee dafa ne xudu anni manasikakum jël leen ni ngeen aje ci ban sallu kama raaytumuni usalli bu ñu bu ñu aqimu salaa ñu koy defee mu ne kaay xool nu mu def rek ngeen def julleen yi may jullee kon ma ngi irshad ma ngay digle ma ngay wane kon mooy al murshidul awal laa mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ko sëriñ mooy al muallimul awal te mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ko sëriñ bi melal ci muqaddimatul am ndax ci xarfu nun ni ngeen ko xamee dafa ne nasihun bila ghishin alimun muallimun saxiyun bila manin kalama yulayinu sallallahu alayhi wa sallam nasihun bila ghishin da lay da da lay da lay da lay da lay xelal te du la wor dafa xam te day xamle dafa tabeete du ci du ci tegu làmmiñam te wax ci day néew méthode bu ñu koy waxee day day leer day day day nooy day neex a dégg kalaaman yu lay yinu ci xasidu tey si nga xam ne was fi was bii ñuy wax sëñ bi da ko melal yonent bi sallallahu alayhi na tey si la asir bi ngeen di jàng nga bi da ci dëx yoon yu bëree bëri saare alquran yi sal am na ci fu wax awalu yaa axiru yaa mu bi taslimina ala sayidina muhammadina habibina murshidina sallallahu alayhi wa sallam idan huwa bi imtiyaaz waxaat ca kanam ne salli bi taslimin wa alihi wa sahbihi fi lxaali wa fi lmaali yaa muqiima alxaali salli bi taslimin ala sayidina muhammadin habibina murshidina wa alihi wa sahbihi wajal xuruf dannat min alxayraati min xayri duruf li ci shahid bi rek mooy al murshid sallallahu alayhi wa sallam pour wax ne sallallahu alayhi wa sallam mooy al murshid rabbani al awal kon ndax euh, rachad ak huda ak istiqaama yëpp mooy ak mbaax te Sëriñ Tuubaa na gaa yu baax yëpp li ñu am dañu ko abbee ci yonante bi yonante bi amuk baax qul xadamaahu aw xadamatahu fi riwaaya uxra fawqa kulli raqaba minhu istaara al xurru kulla xaba istiara istaara al comme yéen ñi jàng xam ngeen istiara li muy firi waaw kon day mel ni ñun ñu baax ak mbaax dëgg yonante bee ko moom te ak mbaax dëgg mooy xam-xam ak mbaax dëgg mooy mooy jub ak mbaax dëgg mooy jàngale ak mbaax dëgg mooy lewet loolu lépp yonante bee ko moom ñu baax ñi dañu ko abbe ci moom waaye moom moo ko moom kon mooy al murshid bi yàlla dogalee nag yàlla loola neex yàlla ñi ñi ñi ñi yaraate bari ñi ñi jiddee bari muy dox addunay dox borom xam-xam yi aw li yu nit baax ñi góor ak jigéen nag góor ak jigéen danaa ci insisté baatu jigéen boobu ndax ci fin ba dana am lu question bu ñu ci posé li may wax lépp ñëpp ko bokk amul góor ak jigéen ba ku tedd gi feeñ sa radiallahu taala anhu nga xam ne kenn xamul lu mu lu mu doon wax ne moom mooy wa yaxluqu ma la ta'lamuuna ay sëriñ Tuubaa rek na ko sëriñ ba waxee sallallahu alayhi wa sallam mu mu wane ci nag moom mooy kan moom mi ñuy bëgg jàngal bi mooy kan ak muallim wala cheikh defee ko façon boo xam ne dafa ko def minhajiyya bu bu kowee avec ngeen baal ma ci waat dafa ànd ak ndax da waxuñ nii la mel ne gaa yu baax ya gaa yu baax yi dañ nii lañ meloon gaa yu baax gaa yu gaa baax yi ñooy ñan bopp lu bëgg a wax waaye mënu ko waxee noonu ndax ndax ndax ndax eh, eh, eh, kéemaane gi ak yàllaa gi ak woyef gi ak njàggale mi waaw te xam nga ne almurshid rabbani bari na tur waaw bari na lool te da ngeen di yéen jànk da ngeen di wax ne mbir mu bari tur day wane ahamiya loola importance am mooy tax mu bari tur danañ ko tuddee al imam almurshid rabbani danañ ko tuddee al cheikh danañ ko tuddee al dalil danañ ko tuddee al xujja danañ ko tuddee al aarifu billah danañ ko tuddee al aalim danañ ko tuddee al allaama danañ ko tuddee al xibra danañ ko tuddee al jihbi danañ ko tuddee xujjatul islam danañ ko tuddee ayatul islam danañ ko tuddee al naxreer danañ ko tuddee al marjaa diini dañu ko tuddee al baxar muy géej dañu ko tuddee al ustaaz dañu ko tuddee al muallim dañu ko tuddee al xalifa yëpp ay tur la yoo xam ne murshidu kilifa diini ki mën na ko tudd waaw mën nañ cee sore ci bu nekk waaye pour gagner du temps rek ñu tënk noonu rek ñu xam ne bu ñu ne bu jëree dellu si ñu dellu si incha allah léegi ndax murshidu rabbaani kenn la wala xeet yu bari la kilifa diine defe naa ne ko firee ci wolof kilifa diine lañu ko firee ci wolof kilifa diine benn xeet la wala xeet yu bari la xeet yu xeet yu bari la Euh, waaye sëriñ bi tënk na ci rek ñetti xeet yoo xam ne mooy euh, yu mag yi mooy sëriñ buy jàngale sëriñ bu yaraate ak sëriñ bu yéegee mu tudd ko cheikh taalim cheikh tar tarbiya wa cheikh tarxiya bu lan mooy cheikh taalim lan mooy cheikh tar tarbiya lan mooy cheikh tarxiya bind yi bari na ci lool waaye nañ doyloo li sëñ bind rek waaw ndax mën nañ cee dem ci fu baree bare waaye nañ doyloo li sëñ bind ñi sëriñ ak ñu dul sëriñ ñu taalibe ak ñu ndongo yëpp ni ñu war a mel ba noppi nag bu ñu ko melee ba noppi nag mu door a wax nag moom nag la mel li may wax ci ëpp maa ko jëlee ci majmuwa bi mu tuddee majmuwa Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne mooy téere boobu sëriñ Abdoul Ahad bi moo lu woon ay xikma ci nekk ak ay wasaaya euh, xam ngeen ko ñu bari ci yéen am nañ ko te sëriñ suñu mbokk bu baax mi suñu kilifa sëriñ Abdoul Ahad bu sëriñ Chouaïb bu bind ko euh, ci ndigalul sëriñ Abdoul Ahad ñu dajale ci yu baree baree baree waaye damay wax ne booy majmua bi ma maa ko tuddee ñoom Cheikh Abdoulaye majmua bi amul amul amul amul amul date d'édition amul mission d'édition ba ko bind amul numéro numéro d'édition defe naa benn lañu ko génnee daay bëgg wax yi bu ngeen di cité da ngeen di wax eh, édition baag date baag page baag ko bind ak da ngeen da ngeen tudd ko bind ak ba ak ak nombre ak date ba ak fañ ko bind ak a tudd ndax yee amu ci waaye ñun dong yooyu ñu gannaaw jóge nag si ablaat rek gëm nañu la ci nekk radiyallahu taala anhu te kon li ma li ma tuddoon principe général bi nga xam ne moom la sëñ bi njëkk a indi laata muy indi melooy boppam eh, eh, dafa am ku mu doon ku mu doon ku mu doon dénk waaye yéen jànkati usul yi dafii borom xam-xam usul a ngi fi eh, dañuy wax ne al moom bi umumi di laa bi xusuus sabab bu ñu ma xikma xëy na xikma dara day tax mu ñëw waaye bu bu bu nas bi ñëwee dafay am dafay am portée générale li ñuy wax règle juridique day am portée générale xekkami sëriñ bi itam wala wasiyee sëriñ bi su fekkoon ne dafa am ku ko adressé itam te day valable ci ñun ñëpp ngeen baat ma ci baati nasaraan yi muy dugg na wala dañ koy dem ci jublu ak leeral rek waaye du waaw ndax kii moom dend ak moom di wax baati nasaraan na sax waaye dañ koy jéem a gannaaw moom lépp la dégg te dañ ciy jublu leeral la ñu bëgg a wax rek ki sëñ bi bind lettre bi kilifa la ci kenn ci kilifa yi waaye da ko ne waj al hadihi al wasiya hadiyatan ila siraatil mustaqim te siraatal mustaqiim moom ñun ñëpp moom la ñu raas la mu ko ca wax rek da ko ne ci gàttal maa ngi lay diggal euh, nga xam-xam ak jëf ak bu yar nga ànd nga nag ak cheikh boo xam ne kilifa goo xam ne dafa boole yooyu yëpp alayka bil ilmi wa bil amali ba ta'addubin murafiqan cheikhan jama dal ne ko xam-xam mooy li nga xam ne moom la as di yóbbuloo ndax boo ko yóbbuloo xam-xam foo jëm di lay teral jëf jiw nag mooy ngeen ji yóbbal boo amee xam-xam te boolewoo ci jëf jiw daanaka da ngay bu yàggee da ngay waru fal ilmu xayru ma bihi daana al fata li annahu yukrimuhu xaytu ata wal amalu saalihu xayru zaadi fal ilmu duunahu gururun baadi daanaka wala adabul mardi yi jikko ju rafet akub yar ak i teggin afdalu jamaal fa daani duunahu tamaathala ad-dalaal soo ko ci boolewul rek loo am xam-xam loo liggéey liggéey loo def jëf ju rafet te boolewul ci yar rek liggéey ba day jëf yi day des kon dangay ngay booleem xam-xam ak jëf akub yar ànd ak kilifa gu mat kilifa nag moon yoon nga boole ko nag nga boole ko ki teggin akub yar ñett yooyu na ko boole bi salaatil mazkura fa hiya la daal la rabil washa rabil wara mashkura yàlla gërëm xam jëf ju sell ak ak soo ko boolee moom lu yàlla gërëm la te nga tax ko sub na nga tax ko muñ nag ci ci topp yàlla yi ndax xam nga sabru dafa am façon sabru ala ak sabru fii wa sabru euh, ni ngeen ko xamee euh, mu ne ko wala wala si bi sabru ala taati wa an wal xayri bi laltifaati kon fii am na sabru ala taati wa sabru an siwal xayri da nga da nga muñ nag ci jaamu yàlla yi bu nuroo lu diis ci yow itam na ko muñ te sellal ko lu dul lu baax nag bu bu ci geestu te bul ànd ak ci sàkku xam-xam kenn koo xam ne làqut ñett yële dana am muñ dana am dana dana dana jëf dana dana jëfi xam-xam bi dana am ay ay teggin dana dana jëfi lim ca xam te te na nga bàyyi nag ak taswif maanaam di di di di di naa ko dàq ba suba ngay wax naa bàyyi ba suba am nañ jot nañ bàyyi déedéet loolu war a defee def ko tey lu ne rek def ko ci waxtoom te bul rey kon ne koo xam ne lii ma la wax du ko def lii boo ko defee daal te fuuq jii laka in qaadat in qabiltaha nasxan ya fuuq lii ma la lii ma la digal laay biri la ko boo ko jëfee da nga raw sak maas te loolu mooy na nga jàng na nga liggéey na nga seddal liggéey ba mooy al ilmu naafia wala amalu saalih wala adabul mardi nga boole ci nag as sabru ala taati wa sabru lii daal boo ko boolee da nga raw sak kon loolu ñépp ko moom moom damay wax ne principe général la boo xam ne ñépp ko bokk kon kay kay kilifa gaa këdul kilifa kay mag ak këdul mag ñëpp ko bokk ñu taalib bi yëpp ko war bokk ak jullit yëpp mu jógee fa nag ñëw nag euh, euh, ki koy ki lay bëgg a digal nag mu mu xam ne boppam mooy kan ndax du caagee na ko jóg rek digle yow bala ngaa digal dafa a mel waaw waa ji rek ne ko kii di sama sama taale bi gërëm naa ko lu ko yow na ku kon léegi bala ngaa gërëm kenn wala bala ngaa digal da a am na war a mel muy muy muy nag moom ni mu mel def ko rek di ma waxee de façon indirecte ngeen baal ba ci baxeen bi waxut ne nii laa mel dafa wax ne gaa yu baax yéen nii lañ mel mooy xoq bi ngeen di jàng saa su ne mu yéeme loolu nga xam di ko tàmbalee innamal amalu binniyaat loolu gis la ci xadis wa innamal mulku liman maa nawaa xam ngeen ko ca Buxaari ak Muslim waaye mu da cee de da cee teg moom wa niyyati ak tabarruki bi saadaat saadaat mhm. gaa yu baax yi bari nañ lool waaye rek tudd tudd ci kenn boo seetloo itam dafa leen a boole rek globalement rek seen seen seen i melo mu ne maa ngi jooy gaa yu baax yi yi faar yi fi jóge gaa yooyu nga xam ne suuf si leen di jooy asamaan si leen jooy maa ngi leen di jooy te ma yaakaar ci jooy googu ma leen di jooy ndax li ma leen gisatul gërëmul suñu borom ëllëg ndax dañoo bi ci xéewali suñu borom maa ngi sa li ñuy diis diis ci man di mag di métti ci man ñàkk ma mu ñàkk gaa yu baax yooyee ndax gaa yooyu dañoo làqu dem ci seen borom ci kaw yi daa amum jël olu waat ñu jëm ci seen borom ci lu gën a koy duñ gaa ne gaa yàlla kaanu ibadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bihim bi binnaati dañoo nekkoon dañu jaamu yàlla dañoo nekk ay jaamu yàlla di di topp yàlla yàlla di leen joxe xéewal dañoo demoon ba sax ñàkk wird ñàkk wird ak ak lekk lu laal ak jëfandikoo lu leew ba suur defoon nañ leen ci musiba yu mag yi la bokk kaanu yaaduuna tarkal wirdi ma shibaain min al xalaali min asbaabil musibaati dañaa taxaw nag yaamu yàlla kaanu idal laylu axasat satra xalakin xaamoo si daa am li axyaa it bidu naati bu ñu demee ba ne tëdd dalloo ji des ñoom yi ñu tëdd taxawal julli guddi wax ju amul solo wala ay kaf dañ ko wu ndax wecceekutul yàlla na nelaw guddi nag xamuñ ko dañ ko weccee di di deele seen borom baa am fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fa nawmu bi layli baa a bil munaajaat mu ne fa ñeen waroon tëdd dafa mujj woo ba duñ tëdd ndax duñ tudd duñ tudd kumba duñ tudd ngóone naasina leen dama ko wolofal naasina leen la wa salmaan mu ne naa rek mu ne ko kubba ak góone rek nekk eh, ñu fee fa fàttaliku góone xalaat dañuy dem rek seen gànnaay yu rëy yooyu seen seen i seen moo tax ñu am ay karamaat am ay xéewal yu rëy rëy mu ne seen seen seen néeg yi ñu daan a tabax. arkaanu bayti jamii'an qawmi arbaatun yu asru bu ñaaru wilaayati ñeenti kenn la am. seen néeg yi daan tabaxal ñeenti kër lañ ko tabaxee sumtun wa joon tawilun baadahu saharun wa usratun an shuyuxin bil isharat noppi ak xiif bu gudd lool xiif bu xiif bu yàgg lool ak ak ak ak ñàkk nelaw ak wéet nag ànd ak kilifa yoo xam ne ñoo leen junj euh, baax yooyu nag wax ko ne seen qualité kenn ku nekk ñoom borom xam-xam la ragal yàlla la ku ku yare la ci ay adkaar ak ay xaalaat ay adkaar mooy lu mu lay wax nga koy wax ay xaalaat mooy lu mu lay lu mu def nga ko gis si moom wala mu lay xool nga muy tàbb ci yow waaye adkaar rek mooy lay tudd sa làmmiñ dañuy yare di yéege nit ñii di leen yéege ci ay wax ñii di leen yéege ci ay jëf ñii di leen yéege ci ay junju minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha abadan minhum murabbin muraqin bil ishaaraati kullun xabirun bi adwaa ma qulubi maan yakfil muridina anwaa saadaati am solo mooy dañuy xam feebari xol yi nga xam dañuy nekk ay expert ci feebari xol yi mooy léegi dañuy nekk ulama nafs ulama euh, yoo xam ne dañuy am euh, rabbaani yun nuuraani yun la ñu doon ndax dañuy xam adwa al xulub mais feebari xol yi lépp luy tax a ab murit sonn wala ab murit nàkk texee dañ koy xam di ko moyal ñoom ñëpp ku ci ne da ngaa tedd ragal yàlla jub tabe koo gis nag dénk ko lu koy jariñ yi kullun karimun taqiyun dhu hudan wa saxan yumdil nasihata fi kullil bariyaati waaw kuñ gis ku ne rek ña ngi lay digal di la teete di la teg ci yoon woo xam ne day tax nga jariñu day tax nga jóg te lañ lay digal boo ko defee da da lam lay defal boo ko defee day fa day far lépp lu nekkoon sa bakkan lépp loo xam ne naroon na laa naroon na laa gàllankoor dala koy dindil yam xaw bi taqwa xuduuti nafsi jumlatiha yaa yaani uluman min al mawla saniyaati dañu am ay xam-xam yoo xam ne xam-xam yu leer nañ yoo xam ne ci suñu borom lañ ko jëlee dañ la koy leeralal kenn ku nekk ñoo dafa am positif positif boo xam ne da koy koweel positif boo xam ne day ànd ak moom jëm ca yàlla mu tedd may may terale borom borom borom borom ubbee yu rëy ya kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin muizzin bil futuhaati te it dañuy gis li ci biir na dañuy gis secret du caag yoon rek loo leen waxul xamuñu ko dañuy gis yàkkare yi baañul xal bi ci seen bëti xol la ñuy gisee mu mu ne fàng la nga làq sa biir xol defe ne kenn xamu ko ñoo la gën a xam loolu nag beneen mbir la dañuy am leer goo xam ne dafa mel leeru ci jant fu ñu jëm ko fa nit koo xam ne nan nga am leer mbaa nga am ak ak ak ak gindeeku bu ñu la gisee dañ la wàll lépp loo xam ne yaa ngi koy nëbbu wala def nga ne de xamee ko yàlla yàlla da koy xamal yaxibu an kulli kawnil mukawwini daa nuurin adimin wa sirrin min guyubaati yamxu an il qalbi raynan qad yudannisuhu mahwal mughasili an thawbi najasa lépp lu tax ci nit bu la gisee dañu koy raasal comme ku mel ni kuy fóot ni muy seetale noonu la ñuy def ci loxol yi noonu la def nit ñi mu ne gaa yu baax yooyu nag kenn du kenn du toqi seen jotaay ndax taalibe bu toog ak ñoom wala nit ku bëgg lu baax toog ñoom dañ la yokk ay texe ulaayika al qawmu laa yashqa jalisuhumu id yaksibuuna al muridina saadati lu tax ñu am loolu rek fi ñu ko jëlee nga xam ne kon fii da ngay ne alaana Mbàkke Kajoor bi ma tuddee alaana Mbàkke Kajoor da ciy feeñ ndax wasaa'id yi daan am tariixa nangam ak nangam nangam yooyu yëpp boobu fekk sëñ bi sëñ bi weesu na foofu day tëbi day tibe ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne la naalu bi xaw xafri rasulil Mustafa rutaban sallallahu alayhi allati yu'til maziyati li ñu am nag fi ñu ko jëlee mooy dañu doon topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ jëlee ay daraja yu kawee kawee kawee ak i i ay ay ay ay ay pagguteef yoo xam sëñ moom leen ko defal topp gi ñu topp sallallahu alayhi wa sallam tax na ñu am ay ay ay ay ay ay jikko yu rëy rëy naaloo bi xafi ladi jaa al aminu bihi alayhi minu salaati kulla saati kooku nga xam ne maa ngi julli ci moom waxtu wu ne topp ga ñu ko doon topp moo tax ñu am ay jikko yu rëy yoo xam ne dalaa ci lim yenn bokk na yoo xam ne kenn mënu ko bind ci xalima bokk na ci jikko yoo xam ne kenn mënu ko tudd ci làmmiñ kenn am na ci jikko yoo xam kenn mënu ko nettali ndax dafa kawe dafa xóot dafa bàttine bokk na ca seen jikko yooyee dañuy dañuy géeju ci xam-xam sharia min xa tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyadati dañuy boole sharia ak xaqiqa zahir ak batin la ñuy boole loo xam ne leen ko may mooy topp guñ topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw nga am yoo jiitu yoo tëb mu ne bokk na ci lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ñu wax dara baa ñu def dara te xamuñu ak ak wéram duñ def leneen lu wér la duñ wax leneen lu wér la mu ne dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy takkoo ragal yàlla ñu seen borom bu ñu tàmbali ak bu ñu daaneel lu ñuy def lu ne ragal yàlla lañ ci jiital inna akramakum indallahi atqaakum ko alquran waxoon moom la ñuy gànnaayoo moom la ñuy meleroo dañuy dañuy dañuy not seen bakkan duñ def dara loo xam gis tal la ndax bakkan dafa bëri pexe dafa mën a waraate moo tax ñoom dañoo fexe ba not seen bakkan te moom am na fu mu waxee ne malaktu nafsiya wa zahzahtu laain te malaktu nafsiya bari ñu bëriwuñu ku gis koo wax loolu nga ko mu ñoom gars yi dañoo baax ba nga xam ne dañuy def ne ku ñu def defe nañ ne sax ñoom ay karaama sax wala ay kéemaan defee ci ñoom yë yëyewuñ ko yaraw na anfusahum dunal war a abadan wa annahum lam yaliqu bil karaamaati dañuy takku buñ lu leen lu leen way way tooñ def dañ koy muñ lu leen dal ci àllor wala lu noona dañuy tuub ñoom dellu ci yàlla defe ne ñoom ñoo ñoo def lu noona waaye yàlla eh, lu baax rek moo jóge ci moom fu ñu toll dañuy dañuy mel ni ñu triste ndax ragal yàlla boo leen fol dañuy dañuy dañuy foog fuglu ndax ndax xam ku am ki ki ki njàkkaar lool mu di euh, subhanahu wa taala moo tax foo leen fekk rek foo leen fekk rek dañuy jekk di fuglu di ragal di di di di boole xawf ak raja dañuy ragal naafeq ndax naafeq da ngay def loo xam ni wane loo xam nekkul ci yow ndax xam ne nit ki loo loo loo nëbb tam ëllëg dana feeñ ndax xaw fal foo doo xaati fii hawlil qiyaamati ndax yow xiyaam bu ñu ci àggee moom lu waaye nëbboon dana feeñ ñoom xam bu ñu xam loolu nag moo tax duñ def dara lu ñu naa fekk li nekk ñoom rek la ñuy wane foo leen fekk dañuy dañuy woyef ngir yàlla dañuy dëggu dañuy dañuy dañuy dëddu àdduna ma tathiiri afaati lépp luy nëxal mbir wala lépp luy taqal mbir dañ koy dañ koy dañ koy seetal fu ñu toll ñu dañuy jublu jëm ci yàlla ci jal bu ak jafa bi bii nehaa i shikaayaati bu xéewal bu indee allahumma in atatini fa shukro wa in manata faridat wa sabro bu xéewal gi ñëwee ñu sant yàlla bu leneen ñëwee ñu sant yàlla muñ ko kon léegi ñoom lu mën di rek Euh, inha i shikaayati du ñu sikk saak duñu duñu duñu duñu duñu jàmbat duñu duñu jàmbat suñ toll rek dañuy wéeru ci yàlla sant yàlla bokk nag seeni meloon tam boroomi xam-xam lañ borom dañoo ñu lewet lañ duñ fi nekk nag di wootee maqaama ka nit al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum duna daawi wa inkaaril maqaamaati waaw dañuy dañoo fees dell xam-xam waaye dañoo lewet domm nag bu ñu fa nekk rek di wooteeg nii laa mel rek mun naa léegi xam naa ne déedéet du ñu weddi kenn itam ku ne noonu yàlla def neex na leen maa ngi métti lu seen dem ñoom ñooñee ñooñu nga xam ne seen yoonu mooy tariqatul Mustafa xayril bariyaati kon moom moom rek moo fi mel nii waaye bëgg naa wax nii laa mel waaye da koy def ci defee woo xam ne bi sura xayri mubashara de façon indirecte ci gàttal rek mën nañ ci taxaw loolu ci bayti bu nekk daanaka rek sa wax ci bare bare waaye pour pour gagner du temps rek ñu gën a kii tuuti dem nag ci léegi xeeti mursid rabbani ak benn bu ne fu ñu ko teg ci ci ci mbindum sëriñ bi rek sëriñ bi rek sëriñ bi da cee tënk ñett rek muy cheikh waxoon naa leen ne mursid rabbani ba ba nañu tur bokk na ci turam cheikh am na fa ko sëriñ bi tudde cheikh tarbiya cheikh taalim cheikh tarqiya bi am nañu ci yokk ay tasfiya ak taxliya ak taxliya waaye yeneen mbir la waaye ñett yi sëriñ bi insisté rek mooy cheikh taalim cheikh tarbiya ak cheikh tarqiya kenn ku nekk moo wax ne mooy kan ak lu lu war a daje ci moom ak la la la mooy cosaanam mu njëkk ci cheikhu taalim ba tey ci bañ moom cheikh Abdoul Ahad bi la wax ji jóge page 129 130 ba 131 dana ko ci fekk mu ne cheikhu taalim mooy koo xam ne ñetti mbir war naa nekk ci moom war naa am xam bu wér war naa am lamiñ wu leer bañu mel lamiñ moom ndax itam tabee kërëbi rek lamiñ wu leer war naa am xel xel mu xel mu rëy xel mu raaja aqal raaja ndax day jàngale cheikhu taalim mu ne mu ne xel xel mu xel mu xam-xam bu wér dafa war a ne xam-xam boo xam da nga koy teg ci kitaab bi ak sunna ak waxi gaa yu baax yi jàngale gaa yu baax yi ak lépp lu xel nangu ak lépp lu mbir mu rafet nangu ak lépp lu euh, lay wu jub nangu kon loolu mooy loolu mooy loolu mooy charte bu njëkk bi ndax mënoo jàngale te amoo xam-xam ndax jàngale moom du dara loolu ay connaissance ngay transféré rek ay xam-xam ngay jël di ko jox keneen kon ndax xam-xam yooyu nga jël war naa leer war nga koo xam war nga am lamiñ wu leer ndax bi xaytu yubayinu bihi anil maqasid min gayri ihtimalin wala tasawur li anna al ibara hiya allati tufidu al maqasid wa tarfauha ndax booy jàngale foog nga war nga wax lu leer waaye booy tab-tabee ka kii jéeka wala xam ñu li ngay wax kooku taxut ñuy wax booy jàng da nga war a mën a wax cheikh taalim dafa war a mën a leer làmmiñ da nga war a am aqal raja am xel mu rafet mu yaa moo xam ne li ngay wax da ngay xàmmee xam-xam yi xàmmee sew-sew yi xàmmee lu yàq ak luy ak ak ak ak luy wàññi ak lu yokk nga nga seet wecc te te doo ruus a wax xaw ma nangam da ci roy imam malik rek la ko waxee mu ne malik li ëpp ci li ñu ko daan waaj daana wax ne la la adri te ah, imam malik xam nga ne mooy eh, imaamu daaril hijra sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag yow mi jàngale nag cheikh temps war ngaa am xel mu rafet war ngaa maandu war ngaa ànd ak dëgg te bu ruus boo jaam boo juumee bu ruus ne juum naa boo xamul te bu ruus ne eh, xaw ma waaw te lépp loo xam ne day indi sikki sàkk ak sikki sàkk ak moytu ak ak werante nga moytu ko loolu da nga war a nekk ci leer fu ñu ko teg bu cheikh taalim sëñ bi ne daal leer na ne euh, xam-xam kenn du ko xam te kenn du jàngale te amoo xam-xam kenn du jàngale itam te amoo mu ne téere sax léeg-léeg dana doy ci nit ku am xel ku réyum xel léeg-léeg téere dana doy waaye nag dana des téere rek doyul da ngaa war a am kilifa ku la koy wan ndax ay alxuraan moo wax ne bala huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilma mu ne fii kitabil minhaj imam al ghazali dafa wax ne ana al kutubu kaafiya walakin a cheikh fatiha wallahu taala alam mu ne téere yi mën naa doy mën ngaa réewum xel jàng téere xam ci lu bari waaye nag cheikh bi sëriñ bi ne koy jàngal moo la koy ubbil bu baax suñu sëriñ bi ñu leen ubbil muy alaaji Mbàkke jaxate mu tedd mi ngi leen tudd sànq ñu ngi koy ziare bu baax ndax ubbil nañu ci lu bari yàlla na ko yàlla yokk fan yokk fanam te yàlla wéral ko eh, al kutubu kaafiya walakin cheikh fatiha kon eh, loolu mooy eh, wéeruwaayu cheikh taalib dafa war a xam ndax bal huwa fii bayyinatun fi sudur fi sudur lazina utul ilma bu dee kuréelum xel muus mën naa jàngal boppam téere yi waaye nag li gën mooy mu am ko jàngal waaw cheikh beneen cheikh bi mooy cheikhu tarbiya moom doon la ko sëñ bi tudde moom it dafa dafa war a am ñetti mbir war naa war naa xam bakkan yi ak ak seen état yu biir ak yu biti war naa xam nekk wujud bi ak taqalubaat yi ci am sopp ko yi ci am ak ak atte yi war naa xam tasrif maanaam Euh, loolu nu muy doxee ak nu ñu koy defee donc maarifatu foos mais dafa war a xam yow mi yow tarbiya bala ngaa tarbiya kenn day am na war a mel li may wax damay wax ne moom moo ko mel la waaye waaye dañ ciy laabiré war ngaa xam bakkat yi xam seeni xaal yu biir ak yu biti xam li koy yokk xam li koy wàññi xam li li tax loolu am bi tajriba te doo ci sikk sàkka doo ci farfarloo war ngaa xam exi àdduna ak ak soppikoom ak attey di ak diine ji li nga xam ne moom la ci diine wax moom la ci orfu wax moom la ci tajriba wax euh, nu mu tuddati euh, aji saam yi maanaam examen katif wala arwax latif maanaam euh, ko koore jëmm yi jëmm yu sew yi ak jëmm yu dijj yi lépp nga xam maanaam war nga xam zahir rek baatin daal ci gàttal zahir rek baatin fu ñu ko teg rek mooy cheikh tarbiya mu ne alquran fi mu waxee ne wattabi' wattabi' sabila man anaba ilayya mu ne sallallahu alayhi wa sallam da daan waa këram yi xam nga dañoo bari woon saxaaba yi ay junni junni lañ mais mais woon li li wolof wax naan fukki xar wala fukki fukki fas wenn yeta leen di sàmm fukki nit nag fukki fukki fukki yeta leen kenn ku nekk sa xaala kenn ku nekk sa xaal kenn ku sa ni nga mel kenn ku nekk ni ngay def rek mu ne sallallahu alayhi wa wax ne wa tabi sabila man anaba ilayya mu ne sallallahu alayhi wa sallam da daan jàngale saxaaba yi kenn ku nekk ci ci ci fekk am na ñoo xam ne dañ wax nañu woor am na ñoo xam ne dañuy wax nañ jàngal alxuraan li koy waral mooy am na benn laaj bu ko ñett laaj ñu bokkut am na ku ne ma ahabul amal ilallahi sala ya rasulallah li ñuy defal yàlla lu ko ciy gënal am ku ko laaj mu ne ko al fi sabilillah am ku ko laaj ne ko ma ahabul amal ilallah ya mu ne ko buruurul buruurul waliday bi kii dana ko laaj ko ne ko ma ahabul amal illa rasul mu ne ko asalaatu fi waqtiha nga xam ne ku nekk mu jox la tontu boo xam ne boo ko jox ci des ndax kenn ku nekk am na la lay faj kee xañ na jihaad koy faj kii bu róor wàll day ni ma koy faj kii jihaad salaatu fi waxtihaa koy faj waaye boo leen boole woon ñoom ñëpp ci benn pax rek musiba am damay wax ne médecin yi ngeen xam médecin bu jëloon benn médicament nga jël fukki ñu malade nga bind leen benn médicament bi ñii danañ wér ñii danañ ñii danañ waay danañ tane ñii danañ faatu ñii danañ danañ paralysé waaw ndax ñun ñu bokkuñu bokkuñu histoire bokkuñu poids bokkuñu bokkuñu tension dégg nga bokkuñu euh, di ko donc ñu bari bari bokkuñu ko kon kenn ku nekk la lay faj moo tax mu ne sallallahu alayhi wa sallam ku nekk daan daan faj sa xaal bi nga nekk mu ne am na ñoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam daan insisté ñu jug taxaw guddi taxaw guddi guddi xam loolu moo leen faj yonte yàlla Aïcha daana dem ba léegi di bañ la kuy xaw a kii loola waaye tax taxul mu wax ko dara te mënoon naa wax ne ñëpp duñu jóg di julli julli waaye am nañu ko daan def mu soññi leen ci am ñu ko daawul def te dawaluñ ci dara am nañu joxoon ay asgar ay ay yu ñuy jàng te jox ko ñu ci des kon kenn ku nekk rek kenn ku nekk ak lay faj laa bëgg a wax waaw wa cheikhu tarbiya ñu ñëw ko cheikhu tarxiya xam nga ko bu wax nañ cheikhu tarbi taalim wa cheikhu tarbiya ak cheikhu taalim euh, tarxiya itam sëriñ bi nee na ñetti mbir koy melal day koo xam ne saa boo ko gisee rek mu am am dolli ko saa bu waxee ci yow rek dalay gën a yokk xaal saa boo jaxasoo moom rek nga xam ne am na lu mu yokk ci leer kon loolu day mel day bàttine soo ko gisee rek da ngay dolli ko mu ne gaa yu baax yi ma tax ñoo wax ne ko ñoo xam ne benn waasiyan mu ne ko mësaan gis rek danañ dolli ko suñu positif ak suñu bëgg yàlla lu mat semaine boo xam ne du jar ñu jàng dara mbaa ñuy def dara ndax jëmm gis rek mu ne ki seexu tarax yi dafa nekk xam ne waxam dalay yokk day yokk sa xaal Abdou Cheikh Abdou Salam Ibn Machiche ne dafa wax ne bul ànd ak koo xam ne rek ngeen baal ma ci wax day jàpp ne moo la gën kooku koo kooku kooku na nga ko sori wala bu mu jéem a wàcce boppam bay bay wax ne yaa ko gën mën naa am boobu da lay wax lu la neex waaye du dëgg ci moom ànd la ki lay wax dëgg rek ànd rek ki nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dem ci yàlla ànd rek ki nga xam ne boo ko boo ko xoolee rek sa xel dem ci yàlla mu ne am na ñoo xam ne ci nit yàlla yi gis leen tudd leen ak leer la ci xol gis leen day ubbi eh, mbóot yi kon eh, ko teg mu ne sa mu ne sëriñ bi nee na sa anas anas radiyallahu anhu nee na bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñibbi àjjana ba ñu denc ko ba noppi nee na bi ñu noppee ci denc ko bay fëgg suñu loxo dañoo yëg witt boo xam ne xam nañu rek kan wujuduhu sallallahu alayhi wasallam am na lu fi nekkoon mu ne ma ma nafat na turab ala aydina min dafnihi sallallahu alayhi wasallam hatta wajadna naqs fi qulubina fa afaada an ru'yata shakhsihi al-karim kaana mufidan lahum fi husuli al-anwar fa kadhalika man lahu nisba minhu bi tariqi al-wirasa al-ilmiya boobu moom moom mi lay wax ndax a sax foofu wiraasaal ilmiya bu wér a wér mais mu ne anas nee bi ñu dencee yonte ba noppi rek ba ba denc ko ba maasale ba fax suñu loxo rek yëg nañu widdi boo xam ne xam ne ne am na lu ñu manqué kon dama fa dama fa nekkoon ko daan def kon kooku cheikh tarqiya la bokk moo mu ne am na waaju baax bu ne am na nit yàlla yoo xam ne di leen xool rek jàmm yàlla la di leen xool rek jaamu yàlla la yàlla dafa bari la jëf lool Euh, sëriñ bi ne am na ñoo xam ne jaam yàlla yoo xam ne xam ne ko xool daan am na jaam yàlla yoo xam ne ku leen xool genn xool rek mën nga caa taxe ba faw waaw loolu xam ngeen li ci bëgg a wax kon am na jaam yàlla yoo xam ne ku leen xool rek genn xool sans ida a adan la shaqawata baadaha waaw gannaaw cheikhu taalim wa cheikh tarbiya wa cheikh tarqiya am na lu ñuy wax tasfiya ak taxliya ak taxliya waaye gën bañ a gën a guddal jëf fii tax na loolu moom di ci ëpp kañ def loola kañ kañ tarbiya euh, kañ taalim tarxiya ko euh, tarbiya ko tarxiya ko moo koy defal boppam mooy kamal la boo xam ne mooy taxliya boppam taxliya boppam tasfiya boppam taxliya boppam waaw nga xam ne moom day mel ndab rek bu la ko bu la ko la ko defarlee ba noppi yaa koy raxas yaa koy selendi yaa koy duy ci say bëgg lu baax ak sa farlu euh, bu ko defee bu ñu jógee ci loolu euh, ci ci tënkaat rek ndax mën nañ cee wax lu baree bare ci baat yi mu tudd ndax ñett laa ci wax rek daanaka waaye ñettee ci des muy at tasfiya wa taxliya wa taxliya yooyu yëpp yu nuroo la waaye alxaw bu ñoo koy xam yéen gaa yu baax yi ak borom xam fa ñoo koy xam waaye ñu ñi xam ne dañuy fortaatoo ko daba daaxee rek mën nañoo yem ci ñett yi nga xam ne ci la sëñ bi insisté su ko defee ñu doon laaj nag léegi makaanatul murshidi rabbaani waaw murshidi rabbaani lan mooy euh, wàccuwaayam wàccuwaay boobu itam ñu mën cee wax lu baree bare euh, ndax wàccuwaay bu wuute la ndax comme day jàngale di form di yeete di laaye biir ci yàlla di ko teg ci yoonu jub kon mën ngaa wax ne da koy ànd ak moom ci àdduna ci dund gépp kon mën ngaa wax ne mën na am na makaana diine wàccuwaayu diine am na wàccuwaayu yar éducation am na wàccuwaayu jàngale am na am na wàccuwaayu social am na wàccuwaayu politique am na wàccuwaayu orientation am na wàccuwaayu administrative am na wàccuwaayu spirituel am na wàccuwaayu direction am na wàccuwaayu diplomatique ci gën ak yeneen wàccuwaay yoo xam ne mën nañ ko lim waaye mën nañoo yemani ci yooyu rek tudd yooyu bu ci nañu wax ci baat bu gàtt rek wàccuwaay wu njëkk mooy wàccu ji wàccuwaay ju diine badaxata ndax xam ne murshid rabbaani la comme nitu diine la kuy jàngale diine kon euh, am na euh, wàccuwaayu diine woo xam ne day jàngale te murshid bu njëkk bi ne woon na inama bu'istu mualliman inama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon jàngale ak yare ak gidee lo lo loolu mooy wàccuwaay wu njëkk bi wàccuwaayu diine woo xam ne moo tax mu am ndax bu doon diine duñu ko teg moom dara wàccuwaayu euh, jàngale ak yar damay wax ne sëriñ bi ba ba mu waxee waa ñu baax ñi ci Mbàkke Kajoor ne rabbi asxaabaka bil himma shaafahani la wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa qaala rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat kon loola lu day war da nga yar sa gaay yi ci ci ci ci jitte te bu leen yar ci jàngale kepp kon xam nga day yar ci leneen yar ci jàngale di yar ci himma kon makaana tarbawiya bu rëy la loola ñuy jàngale ñëpp moom la moom lañu roy ci moom moom lañ doon ci moom moom lañu roy ci moom ndax mën ngaa wax ne xam-xam bi ak yar bi lépp day laytaayal yar yar bi ak defar gi ak ak yéegi gi moo tax sëriñ Fallu ci la waxoon ci ne ceeroon dañoo yar bañ a nër mu jàngal ñu bañ na ar mu yar muy yee ñu bañ na jar waaw nga xam ne kon lu ci ne lu ci ne day ñëw euh, kilifa diine day am makaana taalimiya ndax day jàngale ndax ku yar rek da ngay jàngale fu ngay wax ñu dégg wa ma uh, innama bu'ithtu li utammima makaarima al axlaaq wa ma ataakum wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale kat bu mag bi nga xam ne ñiy jàngale ñëpp ak ñi baax ñëpp seenum jàngale ak seenu baax ci moom lañu ko jëlee kon kilifa gi ne day jàngale sëñ daara yaa ngi fi tabaarkàlla di dégg li may wax gën ma koo xam fuuf makaana ijtimaaya nga xam ay sur le plan social nga xam ne eh, kilifa diine gu ne mu nekk ak lam fay lam lam fay liggéeyee ci njaboot ga njabootu boppam ak njaboot ga ko wër njabootu koñ ba njabootu quartier ba njabootu dëkk ba mu nekk ba ci njabootu biir réew mi euh, xam ngeen ko tatbiqan lii sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne addiinu an nasiha wa solxu xayr wa solxu xayr nga xam ne xam nga ne ku mel ne Cheikh Mountakha mi li muy li muy li muy li muy tegoo ci ay coodo ak i ak i xéewal ak i intervention kenn xam nu mu toll kilifa yi nga xam ñoo nekk roon tam ñëpp kenn fa nga féete yaa ngay def lu mel noonu tàmbale sa kër sa koñ sa quartier sa dëkk ba ci réew mi waaw kon makaane dawru ijtimaay boobu dafa kii ma ne lool li muy séddale ci ay ñam di ko séddale ci ay xewal di ko la ci ay ay téere di ko séddale ci ay ay ay garab ak ak ak ay yére ak lu ne lu ne ci xéewal di ko séddale ci jàmbur ki loolu dawru ijtimaay la kilifa diine di di def rôle bu rëy ci wàllu politique kooku nag du ci sore ndax réew mi dafa sensible fi ñu toll te réew loolu la ñuy déglu waaye politique moom li ma koy dara wax saa su nekk rek ni ñu sëñ Saliou Bakke yeewoon rek dafa yomb mu ne weesuwul ñaar bëgg falu ak bañ a folliku rek bëgg a falu ak bañ a faleeku bëgg a falu nag jërul wax lu ñaaw bañ a faleeku jërul wax lu ñaaw dafa ñuy wax ne réew mi ñunu nee na ñoo ko bokk eh, koo fi gis ak sa bokk la mu muy sa mbokk mbokk wala sa muy sa xarit wala sa xaritu xarit te it coow li lu yëf yëngu bari bari du yàgg ndax sëñ Abdoulaye bu baax mi waxoon ne ne ay xel mën a su dëkk mu ne la romb xel wa neex rek ba mu jógee yeggul fa mu jëm soriwul xel mën a dëkk kon nañ ci boole dal ndax gis ngeen li fii dal ku ne dafi ñëw ku ne ku ne dafay ñëw eh, kilifay diine yi kilifay aada yi kilifay administration yi kili ñii gestion affaire général yëpp dañ fi ñëw di seet si kilifa yi di ko def ci mustawaayaat yëpp nag ci niveau yëpp waaw kon kooku rôle bu rëy rëy rëy la eh, kilifa diine ndax ay ay équilibre la maanaam dañuy tawaazun tawaazun ijtimaa yi dañ ci dañ ciy yëngu bëgguma joo sore ndax fi réew mi toll ndax réew mi léegi boo waxee dañuy këf see wax dagg ca dara dugal ko fu leen neex te loolu taxu ñoo jóg waaw kon nitu diine itam dafay dafay war a jàngale dafay war a orienté nit ñi waaw loolu moo nekk ci dëkk bi moo nekk ci dëkk yu ko nuru moo nekk ci yoon wi moo nekk ci yeneen yoon yëpp mu nekk ci dawaayir yi mu nekk ci munazamaat yi ndax kilifa gi nag kilifa gi la ñuy déglu kenn ku nekk am na koy déglu noonu la ñu koy yi ba àgg ci kilifa gu mag waaw kon ku nekk am nga orientation yooyu joxe yoo xam ne moom ngay joxe ñu la ciy déglu lu bu ñu waxee ñu ne lu sëñ bi wax gis nga ba àgg ci ñun bu ñu seeti weer dañu naan ah ñun de du rek waaw bu sëñ bi ne weeri feeñ na ñu ne weeri feeñ na bu sëñ bi ne nañ ko séntu ñu ne nañ ko séntu ñun sëñ bi la ñuy déglu ñun ah, dégguñu fii séntu weer ak yëpp loolu waxee waxee waxee waxee dong la te dëgg la ci wet ndax sëriñ ba du wax te xamul li mu wax xamul ko teg lu leer lay wax kon makaana roox yee tey eh, kilifa diine dafay am wàccuwaay sur le plan spirituel ndax itam eh, ñi doo leen doo leen neen nag man ngi yéen a yilifee matériel waaye foog am lu ci aju nag matériel kese duñ ko yilif nit ñi am na leen lu ci aju loo xam nag ñun ñi ko gëm dañ koy gëm koo gëmul la gëmoo ko waaye nit ki mën nga ko ëpp matériel waaye am na la ci doole loo xam ne nag amu ko moom loolu lay toppee waaw moo nekk ijaaba ilahiya waaw am na ñu ko weddi waaye loolu comme soo nga weddi ndax moom man kaan man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur waaw bu ko defee kooku mooy sulta roxiya bi nga xam ne kilifa diine da koy am sulta qiyaadiya nga xam ne moom itam eh, da ngay orienté nit ñi di leen jiite ndax damay wax ne murid gi parce que murid laa sañ a wax murid gi dafa nekk quwwa roxiya la quwa bashariya la quwa iqtisadiya quwa ilmiya la quwa maliya la quwa tanzimiya waaye quwa intixaabiya lay doon donc loolu lépp daje na ci murid gi yéen ñëpp xam ngeen ko te bu ci demoon nañu ko sara waaye jotaay bi bëgg a cate moo tax duñ ci sori force spirituelle bi yoonu murid nekk kenn du ko werante force euh, humaine bi mu dool ñaata millions yi taalibe ñoo di murid yoo xam ne kenn la ñuy déglu bu ne woon kaay leen dee ñëpp dee tey suba bu ne woon kaay leen kaay leen fanaan am na bachariya boo xam kenn du ko si sàkka quwa iqtisadiya boo xam kenn du ko si sàkka quwa ilmiya li ngeen jàng ci jàngkat yu baax yéen ñi ak ñi fi nekkul ak ñi may dégg li may wax ak ñi may seetaan ak ñëpp kenn xamu nu mu la kaar quwa tanzimiya ndax ñëpp benn baat dañuy déglu nekk nag quwa intixaabiya voilà loolu moo tax force électorale gi mu nekk moo tax nag gis ngeen dërë dërë jéeg tabarkalla tabarkalla alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mu nekkaat rek quwa diplomatie booy xëy na boobu ci la ñuy daanele aw àgg ci daanel bi quwa mu nekk euh, wàccuwaay diplomatique boo xam ne kilifa dina da koy am xam ngeen ni fii recevoir nañu fi ay chef ay chef d'état ba tey yu bare bare ay ministre ay ambassadeur ay plénipotentiaires yu jóge fu ne ci biir réew mi ak bitim réew waaw dégg ngeen Cheikh Mamadou Fadal dañu wax ne ci année 60 yi yónnee na fi 6 millions Palestine fidaayin Palestine yi xeex ci Palestine mu yónnee leen 6 millions jamono yooyu booba 6 millions bari na euh, pour ne ko ki ki ki président Nasser yónni woon mu xam Mohamed Awad ma yoroon al majlis islamil a'la ci Égypte nee na ñu ñëwee def ko ne ñun président Nasser dañoo yónnee boobu almarhum Gamal Abdel Nasser moo fa nekk daf ñoo yónnee ñu xool dëkk diine yi dëkk dëkk islam ñi soxla ndimbal ñu dimbal leen yow nga ñëw nga ñoo jox xaalis mu ne ko déedéet wolof dañuy wax ne euh, domp domp ci sot la bokk mu ne ko fidaay yi xeex ca ca Sina yi seen kafe ngoon la ñoom lan la ko jàppalee te danañ gis loolu na ko sëñ sëñ Muntaxa feddalee gannaaw bi incha allah kon kon année 60 yi mu joxe 6 millions di ko dimbalee Palestine la te gis nga li fi ñëw ci li fi ñëw chef d'état kenn rek mu tolloo loolu duñ ci insisté yi ñëpp xam ngeen ko euh, euh, sëriñ bi juñu na sànq délégation bi sëriñ Saliou yónnewoon Istanbul ci Habitat 2 nga ne boobu ni mu ko waxee Nations Unies ñoo tànn Touba ne nekk modèle la ci Habitat ndax lotissement lotissement Touba day dëkk boo xam ne amul euh, ay bidonville amul amul amul amul ay bidonville amul quartier flottant lépp lañ ko lotissé te lotissement bi moo jiitu dëkk gi. nga am ku ñëw dañu lay may ba bu neexee nga jënd dëkk mais am amul fàkk dëkk wala ñu bedd yu jubbanteeg bedd yu kii lépp la ñu lotise kon loolu sab la ci Tuubaa la ci nekk ba ñu jëloon ko modèle ñu ne invité woon sëñ Saliou nag mu tànn délégation ñu ko sëñ bi wax na ko baaxee woon ñu ci ñu bàkkeelu bokkoon ca ñu ko ci sant ku gërëm waaw muy lu muy muy ndam lu rëy rëy nag ñu tuddoon ko habitat 2 parce que dañu ko def ñeenti at yu nekk lañu koy def nga xam ne <laughs> bokk na ci anecdote yi ma ciy wax kilifa ga fi nekkoon ministre euh, de l'habitat du ma tudd tur ndax mi dafa doy waar Eh, dafa wax ne boobu kilifa réew mi fi nekkoon dafa doy waar mu ne bu ma ko waxoon ne ko eh, dañoo tànn Nations Unies Touba eh, dañuy wax ne ah grand bàyyil noonu rek ndax réew mi dafa neexut ndax bu ñu ko bu ñu bu ñu a Touba dañu naan pourquoi ñu tànn Touba pourquoi tànnuñu ñële nañ bàyyi noonu rek mu ne loolu lay bañ moo tax bu ñu ma ko Nations Unies joxee information bi rek dama ko wax ci presse bi bu ko xasee wax ci presse bi rek kenn du ko mën nga loolu détail la boo xam ne dafa am solo ci mbir ma waaye li li ci am solo rek mooy acte diplomatique boobu rek sëñ bi def ko te def yeneen acte diplomatique yu bëree bëri sëñ Abdoulaye fi Irak yónnee na fi Libye yónnee na fi dëkk yu bëree bëri sëñ Saliou yónnee na fi dëkk yu bëree bëri barki démb ci événement euh, euh, tremblement bi xewoon Turquie dégg ngeen ko Cheikh Mountakha radiyallahu mi yàlla na fi yàgg te wér yónnee délégation ambassade ba gis ambassadeur yónnee la acte humain la boo xam ne de haute facture koy loolu macha def na ko ci Maroc itam parce dem bi Maroc suuf si yëngoo Maroc mu yónni délégation ñu dem seeti ambassadeur du Maroc yu ne yóbbaale 200 millions jox ko ko ñoo ko jàppale ko euh, peuple marocain ci loolee it xewoon ci ñoom. te te Serigne Cheikh Mbacke suñu mag ju baax ji xam naa gannaaw bi ne dafa daan jàppale la révolution algérienne ndax si sëñ bi tudd na sànq doon jàngi Algérie te loolu ab sénégalais waxuma ko Mauritanie waxuma ko ay naar ma ko wax waaw. mais bi ñuy Euh, Serigne Cheikh bokk na ci ñu lan na jàppale ndax ñoom ñoo ma ko wax ñu bokk ci ñoom bi fa nekkee ñu gis sama tur Mbàkke nangam ñu Mbàkke yow loo bokk Ahmadou Mbàkke mu ne ko ah nangam nangam mu ne ah kooku di ku baax la rajul daal bu ñu bëggee wax ko jàmbale di ñaan la ndax boobu France contre ko jafe na lool ci ko dëkk Sénégal te Algérie da doon bijou ci France ndax dafa jege France riche ba noppi ñu investir fa jàpp nañu ne ñu fa génn mukk bokkuñu woon ak ñun sax statut ñun ñu ay la ñu woon Algérie nag ay département la woon moom dañ ko jàpp woon comme Bordeaux Lyon ak Marseille ak dégg nga ak Reims yooyu mu am ay préfet ñun ay gouverneur la ñu am dépendre ci ministre des colonies préfet yi dëkk Algérie dañaa dépendre ci ministère ñu bi ñu révolté mu metti woon lool Sëriñ Cheikh Mbacke dafa bokk ci leen jàppale ko acte diplomatique bu rëy rëy la ñoom sax dañuy wax ne xam nga naar dañu bëgg seen bopp rek dañuy wax ne ñoom Algérie ñoo tax ñu am indépendance parce que comme France dafa am intérêt yu bari bi ñu ko sonalee ci révolution bi mu ne ah dëkk Afrique yi nga xam daal yàlla xam ne xar mbay dañuy dem rek ñoom amuñu ma solo waaw waaye loolu fekk yëf yi demewut waaye ñoom noonu lañu ko gisee fi mu ne dañuy wax ne gannaaw yàlla ñoom ñoo tax ñu ameen indépendance waaye li mu ci bëgg wax rek mooy te li ma xam te mooy wóor na mën a jamono ji ñun taalib bi yëpp ak ñun murid yëpp ak ñun jullit yëpp ñu ngi jàppale waa Palestine ci suñu xol ak suñuy ñaan ak suñuy taxawaay ndax lay fa xew nga xam ne kenn kenn du ko rafetlu képp ku am xel doo ko rafetlu ci àdduna muy ak tooñ di di lu doy loo xam ne gannaaw amuñu doole juñ ko juñ tag ko def xetale ko nañ ci ñaan rek wa du'aa silaaxul mu'min xul ma ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum te xam ne ne yéen ñëpp ngi ñaan te bu ñaanee ba li ñuy wax ne ku ñëpp tafal da nga tooy ndax lay metti lool rusul na na lool euh, kon ñu ngi bëgg a daaneel bi incha maanaam léegi dafa am lu ñuy posé euh, dama bu ngeen gisee li may li may wax principe yi may wax xalaat yi ak charte yi ñëpp ko bokk góor ak jigéen waxuma ci góor waxuma ci jigéen du noonu euh, euh, euh, waxuma ci askan waxuma ci xeet li li ñuy wax rek mooy kafaa ilmiya nit ki am capacité na ragal yàlla na jub na am na maandu na xam li muy def ak charte yi ma dégg nga may wax mais dañoo seetlu nag ne ci amali ahli Touba pour pour pour paraphraser un peu li ñuy wax amali ahli Madina amali ahli Touba alxilaaf al amma dama ne ci ak ak urful muridi ak abqariyatu Cheikh Ahmadou Moustapha am na lu mu ci yokk maanaam yeneen surut yi day mel ni ko bokk gis nañ fi jàngalekat yu góor gis nañ fi jàngalekat yu jigéen gis nañ jàngal yu bokk ci askan sangam ba askan sangam loolu moom kenn du mbaa men sangam mbaa men sangam mais capacité bi rek moo ci nekk ak surut ñu wax waaye dañu seen ne xilaafa am gi am na waaqe bu fi nekk waaqe boobu nag gisuma texte bu ko bu ko bu ko bu ko naatuma waaye pratique bi laa gis pratique bi mooy lan pratique bi mooy lan mooy li mu tuddee amalu ahli Touba aw awil orf al jaari bi al amal fi Touba loolu mooy lan ak ab xarit Cheikh Amadou Moustapha mi nga xam ne mu njëkk nekk xalif xalif sëñ Touba loolu mooy lan yeneen charix yi ma gis yëpp wala muallim yi wax wala ustaas yëpp ku am capacité yi ba nga ko nekk waaye waaye waaye xilaafal amma bi dafa surut yi daje ci ku ko nekk surut yooyu dafa daje ci nekk ci xilaafaat faraya loolu mooy lan euh, day mel ne ki nga xam ne mooy jiite ci wàllu googu nga xam ne bu dee ci yeneen euh, barab yi ñu ngi ko tudd al imam al azma ñi al nasab al qurashi ñi tudd yeneen waaye fii ci ñun dañuy wax ne même ci xilaafal amma gi ak yeneen xilaafaat yi parce que yëmul ci xilaafa amma gi rek dafa dem ci yeneen xilaafa yi dafa am ñeenti charte yu ci daje kon damay wax ne loolu mooy amalu ahli touba bi al amal fii mooy abqariyat Cheikh Ahmadul Mustafa radiyallahu anhu loolu lan mooy day mel ni kon ki war a jiite ki jiite day nekk ku jóge ci sëriñ bi nekk góor nekk ko jaare ci góor ba noppi mag ah, loolu laa gis loolu laa constaté maanaam liiruma ko fenn waaye dama ko constaté rek mooy li am waaw <laughs> ah, ki nga xam ne mooy jiite yëf yi day day mag nekk góor jaar ci góor eh, ba noppi jóg ci sëñ bi ndax li ko waral mooy dañoo am ay cas d'école dañoo am ay cas d'école yoo xam ab gannaaw bi xew na fi te taxul di changé du mu tudd du mu tudd tur waaye su ma wanee misaal rek da ngeen xam ne ñoo bëgg a wax gis nañ fi ñoo xam ne sëñ bi lañ bokk maanaam dañoo gis koo xam ne sëñ bi lañu bokk moom mag mais ne ko xalif parce que ci jigéen la jaar xam nañ fi koo xam ne moo sëñ bi la bokk mag waaye ko xalif parce que jigéen la xam nañ fi koo xam ne moom mag ci góor la jaar waaye ne ko xalif parce que jigéen la kon li ñu fi gis rek mooy ki fiy nekk xalif day day day day bokk ci bi jaar ci góor mag bu ne bokk ci askan sëñ bi day day bokk ci sëñ bi jaare ci góor mag bu noppi nekk góor kon de day mel ni loolu mooy waaxee bi waaw ah, waaw loolu damay wax ne ab xarit Cheikh Amadou Moussa moo ko moo ko moo consacré ndax gisuma texte ban fenn fu ñu ko waxee ni ñu ko defee nii waaye dafa indi istiqraar te loolu ñëpp la ñëpp ñëpp raas nag parce que bu doon loolu mën naa doy waar te te ba mu koy indi te te yemalu ko ci xilaafaat amma gi da ko yemal ci xilaafaat yeneen kër goo fi dem boole bi daanaka loolu la fay dox damay wax ne Daaru Salaam géem a dëkk loolu la fa am <laughs> waaw ndindi ndindi géem a dëkk loolu la fa am ka ka ka jiite ndax sañ na ma tudd yooyu moom ndax yeneen yooyu fi tudd ñu saaga la weddi la waaye yoobu moom sañ naa ko tudd moom Daaru Salaam mu xam naa kenn fa saaga moom moom fa laa dëkk ndindi it xëy na kenn doo fa saaga xam naa ndax sama sama bàkk ku leen ku leen fi saaga ñu wutiyaat moom tam daal kay jiitu day mag nekk nekk góor jóge ci sëriñ bi ba noppi jaaree ci góor donc loolu daal day mel ne mooy mooy mooy mooy waaxee bi fi nekk mooy di ma tudd amalu ahli Touba waaw al urful jaari bi al amal fii mu indi istiqraar bu kéemaane nag noo xam ne boo bu toon loolu mën naa doy waar man de damay ishaare yi rek jàll ndax borom yi xam-xam fi nekk yoo xam ne li may wax yéen a gën a xam eh, bu ko defee rek dal tëj nag incha ndax yëf yi mu ne soreetu léegi sëñ eh, Fallou sant yàlla bu baax nag rek ci kaddu yi tey jéglu nag xam naa ne kaddu tax koo leer ndax <laughs> magum tukkandoor mu toog ba nëgë ne moom tabaarkalla ak ñem te ñeme koor loolu kaar mm, dañuy dabb daaxe rek waaye eh, yaakaar naa li ñu wax yàlla yàlla na yàlla def mu leer lu ci jub lu nekk rek ñu xam ne kon yàlla ak seenu baax ak seeni ñaan lu ci dëng lu nekk rek ngeen xam ne suñu ñàkk xam la ak suñu ñàkk mën a wax euh, in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma illa billah ñu ñaan ak jàmm ci turu yàlla mi di assalaam ñuy jàmm jàmm jàmm jàmm yàlla ñu yàlla jàmmal ne ko suñu bokku mbaax mi daan ñaan rek nga xam daan ñaanal kër yi ñaanal quartier yi ñaanal région yi ñaanal dëkk yi ñaanal village yi ñaanal tool yi ñaanal usine yi ñaanal géej gi ñaanal suuf si ñaanal jaww ji ñaanal idaaraat yi ñaanal turuq yi ñaanal ñëpp yàlla yàlla def jàmm ndax yaa barru yàllaahuma salbni abad min ramadana waak fi di kulla nakat wasalliman niya wasalliman ramadana ramadana bi tamaam summa tasallimanhu min ni yaa salaam tawi lana umrana saxih lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa yàllaahu barkib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa eh, kay jërëjëf eh, Cheikh Mouhamadul Mamoun waxtaan wi macha allah eh, am na solo te liñ ci séentu woon liñ ci doon séentu lépp it macha allah am nañ ko ci xanaa du ma ñëwaat di jéem a def taaliq ak yooyu ndax dafa leer ba noppite jot macha allah boo ko bëggee commenté mën nga cee indi ay lëndëm waaye daal ñu tënk li li li sëñ bi doon waxtaanee ñu fàttali ko rek ci tënk lu gaaw. tomb bi mi ngi jëmoon ci kilifa ak diine ay meloom <clears throat> ak wàccuwaayam ci njalbeen gi laytaay na ko xamal ñu lan lañ jublu ci kilifa ak diine bu ñu ko waxee euh, waaye ndax jëmmi kilifa ak diine ak ni ñu ko jàppee ñu ndax loolu mënees na ko wutal cëslaay ci alquran ak sunna defe naa ñëw na ci ci lu yaatu tudd na fii ay euh, aaya wute ci alquran ak ci ay maanaam ay ay ay ahadis nabawiya yoo xam ne sallallahu alayhi wasallam la jógee waaye ci biir muqaddima bi itam laaj na benn laaj boo xam ne mel na ne tontu na ko ci biir bi muy yaatal te mooy ndax kilifa diine benn xeet la wala kenn lay doon wala ndax mën na doon ay xeet yu bari defe naa ne ci biir waxtaan bi muy indi melo yi te sukkandiku ci njàngaleem sëriñ bi wane na ne kilifa kilifay diine mën na mën na doon ay xeet bi mu ñëwee ci ñaareelu tomb bi mooy euh, yan ñooy qualité yi nag yan ñooy melo yi foofu itam dafa mel ne dafa tarkiis rek ci jëmmi ku baax ki Cheikhul Khadim ni mu incarné maanaam kilifa diine ndax ci biir waxtaan wi wax na ne sallallahu alayhi mooy kilifa diine gu mag mooy ki nga xam ne bu ñuy wax kilifa diine dëgg-dëgg mooy ki ci ki nga xam ne moo des ci njëb la ndax moom moo moo moo jàngale lislaam jàngale itam nu ñuy euh, toppee ak nu kilifa diine di mel ak yan moo ca war waaye nag ginnaaw sallallahu itam nag ak saxaabaam yi tedd yooyu nga xam ne ñoo ko wutu woon gaa yu baax yi ba ci ku baax kii moom bi mu ñëwee dafa euh, euh, tëj si jëmmal lépp loo xam ne melo la wu ñuy melale kilifa diine ci ni ko sëñ bi leerale nga xam ne dafa indi maanaam xoqal bu kaaw rek euh, wax ne sëñ bi da mel ne ku ci nëbbutoo saxaaba yeeg yonent bi ak saxaaba yeeg gaa yu baax yi waaye fekk na booba dafa bëgg a wane moom ki mu doon ak fi mu nekk ak ñi mu àndal ñi ñu doon ak fi ñu nekk te loolu tamit yenoon na maanaam ndax ci minan Cheikh Mouhamadul Bachir wax na lu mel noonu nee na sëriñ bi ci xoq dafa def tawriya daa daa mel ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa nëbboo mu ko waxee gaa yu baax yooyu fekk na booba xam xam nañ ne Euh, ndax euh, noonu mu jàngalee ne euh, maanaam masaalik mooy faatixa bi waaye xoqa mooy xaatima bi xam nga ci masaalik boobu mi ngi ci jàlbeenu woote bi réew mi jaxasoo na bari na ñuy jóg di woote woo ci turu diine ni ay kilifa diine lañ te mën naa am doonuñu ko moo tax boo jàng masaalik ci mujj ga nga gis ni ko sëñ bi leerale ak ni mu maanaa critiquer dégg nga société bi ci boobu jamono wane ne bari na ñoo xam ne dañuy wax ne ay kilifa diine lañ di di di woote ci turu diine mel nangam mel nangam te mën naa am ku leen jeex bu baax a baax doo ca fekk dëgg-dëgg diine wala kon daan nga cay fekk waaye bi bi mu bi mu bi mu demee nag moom jóg nga xam ne maanaam yemul ci critique rek ci wàllu théorie waaye dafa daal nag diggante daaru salaam jeeg Touba jeeg yooyu nag mu liggéey nag ci wane kan moo war a nekk maanaam kilifa diine nga xam ne da koo tabax daa tabax kilifa diine fii fi Touba ji ak ak ak daaru salaam ba mooy ñooñu ku baax ki doon tudd léegi saadixam yooyu àndoon ak moom bañ mel ni nga xam ne noonu la kilifa dina war a mel mu di leen wane nag ci xoqal bu kaaw waaye nag mu maanaam mu defe ko nag ci anamuk tawriya mooy au lieu mu wax ne man nii laa mel ak man nii lañ mel dafa fexe ba nëbboo rek gaa yi baax yi noonu ko suñu maamoon waxee ma xaw ulaaykal xawmu lay wax ulaaykal xawmu te ku ne xam ne ne moom euh, ci moo jiite ñooñu kon loolu itam lu am solo la kon mu ñëw ci daal jëm ni ni Seex Xaadim jëmmale kilifa diine ci fànn yépp nag ci bi mu ci jógee itam mu indi xeeti dégg nga kilifa diine ak yi nga xam ne ay cëslaay la yoo xam ne sharia da ko da ko wane ak yi nga xam ne cëslaay yi xel la itam nga xam ne xel mën na ko nangu bi mu ci jógee mu nag mu mu mu jeexale mujj nag ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine war na ko am te loolu itam mu mu yaatal ci xëy na waxtu wee xat sax de jàpp naa li lim li mu ci waajaloon xëy na ëpp na lim li indi mooy li li liñ ciy tënk rek mooy maanaam kilifa diine dafa war a nekk koo xam ne dafa war a nekk maanaam wërta nekk rek koo xam ne dafay euh, tënku rek ci benn maanaam qualité wala ci benn melo waaye war naa doon koo xam ne dana doon kilifa diine baat bi maanaam diine ji diine dana doon ku taxawal diine di wane diine di dund diine di jàngale diine waaye da cee war a boole koo xam ne itam day amee dimension yar di yare di jàngale euh, taxaw ci wàllu social itam comme ni ko misaale ci maanaam kilifa yu baax yi tàmmulee ci ku baax ki Cheikh Khadim nga xam ne ku ne xam na li mu dimbale ak li mu xeetli ci ay ci ci ci ci ci ci ay jaam yàlla waaye bu ñu ko bëggee wàcc ba mu gën ñoo jege nañu xool suñu jàmbaar ji Cheikh mu mu mu Mouhamadul Mountakha ku nekk xam na sëñ bi tudd na ko léegi juj na ko fi jamono gën a méttee réew mi gën a ne ci crise ñuy wax ay pandémie ay nangam ak ak waxuma réew mi ak ci bitim réew day jóg taxaw socialement di wane ne moom kilifa diine la dimbalee ñi nga xam ne ñoo ko soxla woo tàmbalee ko nag bay rek sew tànk fii la ko tàmbalee roy ci nag roy ci nag maanaam magam yu baax yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ak waajuram yu baax yi Cheikh Sidi Mokhtar ku ne gis na li li nga xam ne def na ko fii ci ay ndimbal ci wàllu social kon kilifa gi noonu la war a mel ci wàllu ci xëy na ci wàllu politique moom sëñ bi xuus ci lool xam naa <laughs> xëy na fi la ñu toll ak ak ma kii ma euh, maanaam contexte bi waaye teewul am na lu mu ci junj lu am solo mooy doole ji nga xam ne waxuma tubaa tubaa duñ koy jëlale waaye diine ji rek ak maanaam tariqa yi am nañ ko ci wàllu maanaam poids électoral te loolu yaakaar naa ne ñi yëngatu ci wàllu politique bàyyi nañ ko xel lool ba saa bu di ngeen ko gisee rek saa boo xamee ne campagne jeges na wala ay man élection daanaka fii moom waxtu wu nekk ñu ngi ñëw a ka dem ñëw a ka ak ak feneen ak feneen waaye nag dégg rawatina Touba bari nag sax ñoo xam ne du ñu tàmbali seen mitin mukk te tàmbali wuñ ko Mbàkke gi kon loolu am na lu muy wane waaw loolu nag xëy na dafa war war a gën a tax xëy na ñu gën a xamaat bu baax suñu bopp ci ko sajee wax waaye daal mi ngi noonu suñ bi ñëw na itam ci wàccuwaay bi nga xam ne kilifa diine am na ko ci wàllu jubbanti ak orienté saa bu xel yi gëlëmee xol yi jaaxle ñëpp jàq mu jóg taxaw wax def discours boo xam ne ku ci delluwaat da nga xam fi ngay teg sa tànk waaye itam ci wàllu léegi administration yëpp ma dimension administration bi nga xam ne mooy euh, ku ne xam ne xilaafa gi ni ñu ko tërale wax na ko léegi leeral na ko ak yi ci aju ak yi ci bagaaso yëpp leen lu ki nekk dañ koy nos ba nga xam ne fu waay jógee bëgg a dem maanaam dem jàngi wala nga bëgg a dem liggéey wala nga bëgg a dem léegi defi nangam mën nañ laa tegtal foo xam ne boo fa demee danañ la orienté wan la fa nga mën a jaar ba li nga bëgg nga am ko bu dee wàllu ruux gi kooku moom daanaka moog diine ci sorewuñ ndax euh, ki nekk maanaam dañuy wax al mursidu rabbaani rabbaani moom yaakaar naa bu ñu ko waxee rek mooy mooy koo xam ne kon maanaam nitu yàlla la war a doon kon mooy yooyu mu indi maanaam cheikhu taalim bi ak dégg nga cheikhu tarbiya bi xataa cheikhu tarqiya bi nga xam ne wax na ne bokk na ci ay melo mooy boo ko ne jàkk rek sa xel dem ci yàlla te saa boo déggee ay waxam tam mu fàtte loolu àddina dégg nga dëdd loolu àddina nga xam ne soo fi jógee mën nga toog ay fan yoo xam ne du jar sax ngay jàng alxuraan wala ngay uh, tudd yàlla ndax da ngay da ngay sax ci yàlla loolu uh, wàll ci wàllu ruux mooy wàccuwaay bi nga xam ne kilifa gi dina am na ko ba ci wàllu dégg nga leadership bi mu wax nga xam ne maanaam poids koom-koom bi yoon wi am bu fekkee dañ ko wàcc ba ci ba ba mu jege ku ne xam ne yoon wu am na dooley économique am dooley social am dooley xam am am doole lépp loolu nag tax na ba mu man a am benn baat tam nag boo xam ne bu jógee ñëpp topp ci muy lu muy lu jafe nag loo xam ne ñu bari nañu ko bëgg nag ci àdduna bi te dee nga amuñu ko ñu nag ñu am ko yàlla baaxee ñu ko koy itam loolu itam mën naa tey loolu dafa bokk ci wàccuwaay yi nga xam ne kilifa gi dina ko am ba ci bi mujj jeexale muy wa muy nag wàllu maanaam diplomatie bi doy itam gis nañ taxawaay yi nga xam ne suñu kilifa gu baax gi taxawee na ko ci te roy ci itam rek maanaam kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la jiitu woon mën nañu wax sax dama nga tàmbalee ci jamonoy sëriñ bi jamonoy sëriñ bi la daan gis ay délégation yuy dégg nga bàyyi ko Arabie Saoudite di ñëw di ko seet si ko tawat seen jàmbat mu leen di taxaw ci ñaan leen taxaw ci ndimbal ak ci lépp kon day boole social bi ak wàllu diplomatie bi kon yooyu yëpp daal sëñ naa ne bëgguma cee gën a xuus ndax mën naa am kon ma xaw a jaxasewaat <laughs> wax wax ji wala ma lëndëmal ko waaye sant nañ bu baax a baax a baax waxtu wi jot sëkk sëkk Eh, ñu ngi lay ñu ngi lay sant ci turu daayiratu muqaddamatul xidma di la di la ñaanal bu baax a baax yàlla gën laa taxaw te gën laa sàmm gën a gën laa bàyyi ak sa xel ak sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal sa maam nga liggéey liggéey ko ci sa maanaam sa sago te ànd ceeg itam di nga ngërëmam te lépp ñu bokk ko bu ko defee kon mbokk yi eh, ñu ngi siyaare itam kilifa yi fi yëpp ak maanaam borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki di leen fàttali rek ne eh, suba ak jàmm bala ñoo ñëw ci presse bi suba jàmm incha allahu taala jataay bu mel nii dana fi amaat ba keroog koor gi jeex incha allah waaye suba nag ñu ngi war a waxtaane tomb boo xam ne mi ngi jëm ci yi nga xam ne sart yi nga xam ne mooy tënk digle lu baax ak tere ab safaan loolu lañu ñuy waxtaane maanaam dawaabitu al amri bil maarufi wa nahyi an il munkar mbokk mi koy def incha allah mooy sëriñ Moustapha Diop Ndar kon ñoo ngi ñoo ngi sant ci turu daayira bi mboolem euh, maanaam presse bi ñi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan wi ba ñi nekkul fii nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak bitim réew maanaam ñëpp mën ci jot waaye bu ñu tuddee lu mel ne MK TV nga xam ne mooy dégg nga Moukhaddamatoul Khidma TV ak mboolem maanaam rajo yeeg télé yeeg euh, dégg nga ak maanaam yi yi nga xam ne dafa aju ci wàllu maanaam réseaux sociaux yi sociaux yi muy dégg nga plateforme yi ah, hmm? ah site internet yeeg yëpp rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla daal suñ bi incha allah jotaay bi nekk jotaay bi yóbbu barke leer te am nañ ci yaakaar ndax fi ko def ak fi ko defal ak defee ak waxtu wi eh, di sant gërëm tey jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وسهلا ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi